gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa delloo yeesu ci seexu ak seexul xadim sunu njëbbal di e, ñaan sunu borom mu yàggale nañ ci sëriñ Muhammadul Muntaqa mu ànd ko wér lim naa lépp mu sottal ko ñu ànd ko moom nuyu sëñ Abdullahi Mbàkke yàllaay buur mi nga xam ne mooy xalifa borom saam ak mboolem kilifa diine yëpp ñaan sunu borom dolli leen ak wér ñoom njaboot gi nekk seen ginnaaw defal leen tawfeex ak taysiir ci saaxir di leen nuyu yéen waa rajo bi rawatina yow mi nga xam ne yaa ñu dalal di ñaan suñ borom sunu nuyoo fekk leen ci jàmm ak xéewal ak tawféex ak taysiir ci barke Seexul Xadim kon ñu ngi leen delloo nuyoo bu baax a baax di leen delloo siyaar bu baax ñu ngi di nuyu mbokk yëpp. jërëjëf euh, sëriñ Abdou Lahad kàddu yi euh, rafet na am na solo euh, sëriñ Moussa Seck maa ngi lay nuyu di la ziar. ah aleykum salaam bi ñu ngi lay delloo nuyoo di leen ziar. di ziar suñu xalif général des Mourides sëñ Muntaxa Mbàkke di ko ñaanal yàgg ak wér nuyu xalif général des Baye Fall nuyu waa kër sëñ Maam Mor Jaara waa Daaru Salaam ñu ngi nuyu kilifa diine yi nekk si dëkk bépp ñu ngi nuyu ko kilifa administrative yi nekk tamit ci dëkk bépp di leen ziare ak kilifa aada yëpp di nuyu médecin chef district ak personnel santé district Mbàkke bi yëpp ñu ngi leen di nuyu di daal auditeur Bawol Média yëpp waaw jërëjëf Euh, jërëjëf euh, Serigne Moussa Seck moom it nekk foofu ci euh, district santé bu Mbacké yore APS di liggéey bu am solo moom moo fa chargé wu à l'éducation muy njàng ak jàngale ba nga xamante ne si rek moom lañ fay def sëñ su xam naa rek ginnaaw bi nga xamante ne si rek yi bëgg nañoo xam CRSD maanaam mooy lan ak it kañ lañ ko sos waaw jërëjëf ci laaj bu am solo boobu nga xam ne moom nga ma laaj léegi muy laaj bi nga xam ne mbootaay bi nga xam ne dafa jóg tënku utal utal boppam aw tur lan moo wundu tur woowu ci wàllu nasaraan mhm. muy su ngeen ko déggee muy CRSD mhm. maanaam li ko tax a maanaam tur bi mooy lan mooy cadre religieux pour la santé et développement mhm. mooy cadre religieux pour la santé développement. Mm-hmm. kon D googu mooy développement. Mm-hmm. C S bi ci topp mooy santé. Mm-hmm. bi ci topp mooy religieux. bi ci jiituwaat mooy cadre. muy cadre religieux pour la santé et développement. li tax nag mu jóg mooy li tax mu tudd tur mooy maanaam cadre bi mooy am mbooloo. mbooloo man du mbooloo yëpp. est-ce mbooloom sportif lañ. wala mbooloo ay coxeur lañ. wala mbooloo ay. Euh, dawalkati oto lañ. Mhm. wala mbooloo ay mbër lañ. Mhm. déedéet cadre la boo xamante ni mbooloo la moo xam ne religieux la. Mhm. religieux nag yaakaar naa fu ñu ko wax fu ne am na fa solo. waaye Sénégal la ëppee solo. cadre religieux. ngir lan pour lan santé. wér gi yaramu doomu aadama. ak lan développement bi nga xamante ne bi ne moo tax yàlla sàkkuñu. moo tax yàlla sàkkuñu kon cadre bi looloo ko tax a jóg. muy cadre religieux pour santé développement cadre boobu nag. Serigne Saliou Mbacké. moom sëriñ Moustapha Bachir rahimahullahu wa nafaana barakaati yi di màggi ki nga xam ne tey mooy xalifa actuel bi fi toog di sëriñ Muntaxa sëriñ Moustapha Bachir moom moo jur sëriñ Saliou sëriñ Saliou ñu duppee ko sëriñ Saliou Mbàkke mu yar ko def ci moom li nekk ci moom mhm. ba mu jàngi nag niveau national ak international doon cadre nag ci mhm. langue yëpp mhm. yàlla defal ko macha allah ni mu déggee wolof noonu la déggee arabe déggee ko anglais déggee ko français jóg nag gannaaw bi mu amee euh, ngërëmal sëriñ Saliou Mbàkke sëriñam Euh, jóg nag fas yéene delloowaatal boppam euh, li nga xam ne moom la ko réewam defal. mu mhm. jóg nag waaye bi mu koy jóg yàlla def ko ni nga bàyyam meloon ci xam-xam. ak mhm. ubbiku moom mhm. mu ubbiku. nekkat xam-xam laa bëgg a sos ci euh, jàppale sama so société. sama askan. waaye li ma sama réew defal moom laay delloo si waat waa réew ñëw nag bi mu ñëwee ni mu njëkk a def mooy waxtaan. mooy wa amruhum shura baynahum lépp lu ñu bëgg rek dañ koy waxtaanee. mu ñëw nag tàggu ay kilifaam bëgg wax leen li mu bëgg. ñu ñaanal ko ci ne ko sóobul mhm. ñu ngi ànd ak yow di la gunge mhm. bi mu jógee nag mu demaat xool ni nga xam ne noonu la Serigne Touba doon defee mooy yaatal mhm. dugg ci kër kilifa kër diine yëpp bàyyiwul kenn ba bi mu demee ba am ñun ñëpp nag seen accord ak seen apport ci lañ jógee nag nos aw mbooloo mbooloo moo njëkk dañoo njëkk waxtaan ba noppi soo ko nag mbooloo kër diine gu ñu dem gu ne rek joxe nga sa ndaw daal ne lii ngeen di wax de bu doonee dëgg ci yéen danaa ci ànd ak yéen joxe sama ndaw muy tàmbalee ci yàlla dem yem ci yàlla waaye bu ngeen noppee àgg ci loolu gis bu noppee gis loolu ci yéen nag ñu rof ca ko ñun moo waral nag cadre mu nekk cadre religieux léegi nag bi mu nekkee cadre religieux ba pare nag ci lañ am nag xalaatu ne léegi nag bi ñu demee ba am benn cadre boo xam ne religieux la lan lañ war a jural suñu réew ñu ne nañ jël aspect bi nga xam ne moo gën a rëy te depuis 1960 bi Sénégal amee indépendant ba tey am nañ problème mu maanaam santé naka la ñuy naka lañ koy appliquer ci doomu aadama yi. ba mm-hmm. bañ mën koo nangu. Mm-hmm. waaye fexe ba dialogue leen waxtaan ak ñoom ñu mën a nangu li nga xam ne moom la international de la santé laaj. Mm-hmm. bañ mën ko appliquer suñu ñooñ te muy li jafe ci réewum Sénégal. ndax ni ma ko waxee mooy Sénégal bu njëkk bu ñu gisee nit ku xonq dañuy daw. baatu tubaab. bu nit ko xonq rek dañuy daw ne jommi nañ jinne lañ gis léegi nag bu fekkee tubaab daf ñoo coloniser nag ak na métier woon ñëw nag tey ñu jël langue boobu jàng ko nag di ko jëfandikoo ak ñoom dañ naan kon nekk ci seen gannaaw kon nag duñu leen mën a gëm. loolu nag mu doon lu jafe ministère de la santé laajoon ci ay ati at defoon na ci ay effort yu bëree bëri nag. Mhm. waaye pour mu entendre objectif lu jafe woon la. Mhm. moo tax ñun ñu jóg ne kon nag dañ koy jàppale te xubbul watan minal iman. Mhm. ñu jóg nag du euh, ñëw ci wàllu sante waaye dañoo xam ne bu ñu waxee sante kese rek doyut waaye dafay ànd ak lan développement. mooy yokkute. ndax gis nañ ne ku wérul du mën dara. ku wérul du mën dara. ku lompoñ du mën dara. te am réew nag. yàlla kat yonent bi sallallahu alayhi dafa waxoon ne jóg leen yéen doomu aadama yi ngeen liggéey ndax yàlla kat du taw du taw ay du taw xaalis du taw or du taw jamaa mm-hmm. da ngeen di liggéey leen yéen yàlla nag préparé na lépp waaye yéene liggéey fàggu ko mën ko am mm-hmm. te ñu xam ne nag maanaam nag bu fekkee développement ci liggéey lañ koy mën a amee te liggéey boobu ci wér-gu-yaram nga koy mën a amee ñu ne ko ñun li ñuy jóg duñu uti ji ay milliards ñëw di ko politiquer ka tàcco déedéet mm-hmm. ñun mooy suñu xam-xam la ñuy ut sensibilisation la ñuy def moo tax ñu ñëw nag lëkkaloo ak ministère de la santé ne ko ñun de am nañ loo xam ne yow de boo ba am boo uti woon xaalis ba am ay milliards. soo ñëwee da koy def ci santé ak développement. ñun nag am nañ loo xamante ne bi ne tey moo raw ay yooyu. mooy am nañ xam naka lay nit ki di nangoo faju ba noppi euh, mu méngoo ak yi nga xam ne moom la réew mi laaj. ak ak ak bi waaye ak diina. waaye nag mi développement naka lañ koy mën a defee. loolu nag moo moo tax bi ministère nag de la santé saytoo ay at nag moom it. ndax te muñ tëb rek mu ñëw ñu ma nangul ko. dem na di ñu saytu. di ñu booleeg ay ñoo xam ne ay BMS lañ ak ñeneen ak ñeneen ñu ñu jaa jaa suus yi maanaam ñi nga xamante dañuy yudd ay xibaar ba xam ne ñun ñi li nekk dëgg la ñu soog ñoo nangul ba mën naa laa wax ne bi ñu nangulee ñu doon ONG ak léegi 2019 euh, la te 2014 la la taxawoon kon boo xoolee 2014 ba 2019 ñaata at la kon gis nga at yooyu yëpp nag état bu Sénégal mi ngi ñuy saytu yàlla defal ñu nag loolu bi ñu koy jëf nag ñu am ci parcours bu rëy rëy boo xam ne def nañ ko moo tax dama lay wax ne la boo ñëwee ci tariqatu tija muridiya mhm. ay ndawam a nga fa mhm. nga ñëw ci tariqatu tijaniya mhm. ay ndawam a nga fa alqadiriya achagiliya maanaam ba ci ni réew ba ci ba ni murid yi dëkkee sax ak tijaan yi ni ñu dëkkee ba nga xam ne boo demoon canaba seen ndawang fa laayeen seen ndawang fa ñeseen seen ndawang fa te ñoom ñëpp xam nañ ne ay tijaan lañ waaye boo demoon tamit ñeseen njaasaan mu ay xaadir seen ndawang fa waaye ba ci kër abbe yi seen i ndawang bi am nañ ay ay chef église waaye am nañ tamit ay abbé yoo xamante ne bi ne ñoom it ñi ngi ci biir man mii di wax a yow maanaam dama ciy liggéey ak abbé yi nga xamante ne bi ñoo nekk ci église bu Mbàkke mhm. di ci liggéey te loolu nag euh, diine lislaam da koy nangu ndax it am na ci loo xamante ne bi ne am na pàkk boo xamante ne bi ne yonent bi sallallahu alayhi ko signé ak ñi nga xam ne nekkuñu woon ci diine ji waaye lool li ñu ci jublu woon mooy fexe ba jàmm am développement am loolu nag moo waral cadre bi maanaam maanaam balloo ko balloowoo ci alquranul karim ak sunna maanaam ci farata chariatul islam kon dama lay wax ne émission bi ñuy def tey lan moo ko tax a jóg muy acharia wal xayaat la achariatul islamia wal xayaat al yawmia maanaam al al ijtimaia maanaam maanaam vie sociale bi ak yoon bi nga xam ne moom la lislaam teg mhm. ñun ci loolu lañ nekk démb ci loolu lañ nekk tey te loolu lañ fekk yi nag suñuy maam juddu ci loolu yaroo ci loolu jur ñu ci loolu dem bàyyi ñoog loolu kon ñun mënuñoo nekk leneen lu dul loolu moo waral cadre bi jóg mhm. sosu nag mille euh, mi ngi sa 2014 mhm. ba jantub tey ba yàlla def na nag ci 2019 bi ci la nekk ONG boo xam ne reconnu par l' état bu Sénégal mais ñi ngi liggéey national ak international di liggéey maanaam mboolem banqaas yi nga xam ne ñoo ëpp doole ci àddina bi ñëw nag di jàppale sunum réew waaye jàppale gi ñu koy jàppale mooy ndigalal réew mi la ñuy laaj mhm. ñoom bu ñu xoolee fenn ab aspect boo xam ne ñoom jàpp nañu ñun war nañu faa mën a dox ñu wax ñu ko ñun ñu jóg ñun duñu leen laaj waaye ñun ñooy ut suñuy yoo xam ne ay ñi ñu koy euh, jox xam nañ leen mhm. ñu nangul la waaye fonds boobu ñu ko joxee justification dafay am ñu xam ne ne fii lañ ko dugal mhm. fenn foo xam ne jëm na ci politique amut ba tax na ñun li ëpp ci ñun lii ngay gis nit ñi di ko def di jënd ay ceeb ay diwlin ak nangam nangam di def ci télévision yi di ko def ñun duñu def loolu ñun li ñuy def mooy ay causeries def ay waxtaan comme émission rajo yi nii waaye sensibilisation la ñuy def mooy antenne rajo bi lu mu jar ñu fay ko antenne télévision bi lu mu jar ñu fay ko waaye boole ko tamit bu ñu demoon def ay ay causeries lu mu jarit ñoon ñooy def loolu lépp ba ba noppi nag ku fa ñëw ñu jox la paas defal la lépp ba nga xam ne da nga ci gis sa bopp ñu pare nag gunge la ne la demal nga sensibiliser aw ñooñu la yàlla doon wax rek moom la ñuy wax mooy ku dundal benn nit dafa mel ne da ngaa dundal addina bépp waaye ku faat beneen nit mel na nga faat nga àddina bi rek ñun nag loolu mooy sunu chiar boo xam ne solo solo slogan boo xam ne ñun dañuy fexe ba bu buñ mënta dundal ñëpp ñu fexe ba dundal ñett buñ dundalee ñett dundal nañ àddina bépp waaye bañ a faat kenn ndax ku faat kenn rek faat nga ñëpp ñun loolu mooy sunu biir euh, loolu am na solo xam naa rek loolu moom mooy may euh, nga man maa wax depuis bi ngeen ko euh, formé ak léegi ndax jot nga ci laal tuuti li nga jot a def mais lan ngeen ci def loo xam ne ni askan wi mën nañ ko gis waaw maanaam yiñ ci def te askan wi mën ko gis moom bari na comme ndax bu leen jàpp ne rek ñun Sénégal rek la ñuy liggéeyal déedéet ñun dañuy liggéey national ak international. ah kon génn na réew mi. génn na réew mi sous région bi yëpp ñu ngi liggéey ñoom Mauritanie. Mhm. Maroc. Mhm. Gambie. Mhm. gine par partout ba Ouganda. Burundi ak fenn fu nekk ci réew yooyu dañ fay dem. cadre bi dafay dem. cadre bi nag bu fay dem am na ñoo xamante ni équipe la. am na équipe boo xam ne spécialement ñoom loolu moo leen tax a jóg. te gis nga cadre bi. maanaam ay intellectuel ci wàllu diina. Mm-hmm. intellectuel ci wàllu langue arabe intellectuel ci wàllu anglais ak français ñoo ca nekk. Mm-hmm. làkk wooy jóg rek. Mm-hmm. réew mu ci nekk ci réewu addina bi. làkk bu ñuy làkk rek am nañ fi koo xamante ne bi ne professionnel euh, ci loola moom bu ñu demee moom mooy wax ci tur booba. ba li ñu bëgg a xam ñooñu ñëpp xam ko. moo tax ñëpp ko distingué jàpp ci yëf yi li nga xam ne moom la ñuy def mooy. Euh, aspect bi nga xam ne moo ko tax a jóg dëgg-dëgg mooy maanaam mbirum maanaam xeex neef. xeex neef. nag bu koy wax baatu wolof la xam nga bu ñu ko waxee ci wolof kenn du ko daw. waaye saa boo ko andee ci tubaab mooy li ma la wax rek ñu ne planning. ñu daw ko. te damay wax ne ku bëgg a daw baatu tubaab. suñ oto yi ñu war bu yeboo ñu wàcc ko. suñ basin yi ñu sol bu yeboo ñu wàcc ko studio bii ñuy sol ñu bu yeboo ñu wàcc ko ndax alquran moo ne woon ñoom tubaab yi. yaa yaalamuuna waahiran min alxayaati dunia wa hum anil axirati hum xaafiloon maanaam addina dara umpalin fi waaye alaxira xamuñ fa dara dañ ko umpale kon nag dafa am ay ijaabiyaat muy ay positif am ay salbiyaat ay négatif bu ñu andee seen seen mbir nag ñun nañ xool la cay ijaabiyaat mhm. ñu boole ko ak suñuy ijaabiyaat mu doon musdawija mhm. loo xam ne dañ ko boole mu jural ñu naf ko mhm. waaye bu ñu indi lu ñu andi indi rek ñu sànni ko ne cam bu bu ñu andilee mbooloo bi ñu ne cam te boo génnee individuellement bu ñu la joxee nga jël loolu du ak nite Mhm. loolu di al insaniya mhm. ndax ñu bëree bëri li ñuy bañ mbirum tubaab bi mhm. maanaam buñ la bu mbooloo mi toogee bu ñu joxee mbooloo mi nga ne accam ndax yow da ci lu gis sa bopp ndax la bu doon junni la da ngay bëgg juróom-ñeenti téeméer yëpp nga moom moom ne dërëm la a am nga ne accam waaye soo génnee bu ñu la joxee junni bi mu leer la yow junni bi juróom-ñeenti téeméer mën nga ko jëfandikoo nga ne acca loolu nag du nit moo tax nag ñun li ñu jógoon mooy di euh, jàppale état bu Sénégal di ko encadré ñun dañuy encadré état bu Sénégal ak ministre ci jaarale ko ci ministère de la santé ndax du ci lépp lañu

moo tax ñun bi ñu càmbaree téere bi ñu xam ne kon am na loo xam ne war nañ koo sos moo tax ñu jóg suñ xeex bu njëkk bi di xeex planning maanaam planning ni ñu koy xeexee mooy maanaam fexe ba jàppale ministère de la santé laaj ko ñun ne bi ñu koy jàppale te bu ñu rek di ko tàccul naan suñ parti la moom lañ faral dañoo ñëw ne ko ñun de ay nit lañ yoo xam ne doomi réew mi réew mi am na lu ñu lebal dañ koo fara war a delloo njukkal mhm. njukkal gi ñu ko delloo nag mooy ci wàllu xam ak sunuy kattan ñu jàppale ko ci. Mm-hmm. yow ministère de la santé ana lan nga soxla ak fan nga lajjee. Mm-hmm. ci entendre sa objectif. mu ne ñu man de fexe ba samay bëgg gi ma bëgg samay nit wér. Mm-hmm. jëm ci kanam ñu wér te mucc te mën a liggéeyal seen réew foofu laa lajjee. loolu nag bëggoon naa ci xalaat lislaam ñu ne ko ñun aca ñun loolu la am. bi mu ñu ko joxee nag ñu jóg ci loola. jël pàcc bi ñuy wax euh, planning planning nag paquet la. waaye ñun paquet bi ñuy tax a jóg mooy diggante ñaari way dencante yi. muy góor ak jigéen bi nga xam ne dañoo bëggante mhm. te yonent bi salaa moo ñu ko waxoon yaa machara shabab mhm. man istaa minkum baata fal yatazawaj ila mhm. axiri al xadis yéen mbooloom jullit ni képp ku mën ci yéen takk soxna na na takk soxna kon nag takk soxna kon dafay mel ni fardu kifaaya la fardu kifaaya la wala wala sax mu doon fardu ay ni ah fardu fardu ay ni maanaam jëmm ju ne fardu ay ni sax laa koy def maanaam jëmm ju mat jëmm julli jullit bu nekk rek war ngaa mën tak takk soxna bu fekkee mat ngaa takk soxna waxuma soo ko mënee na soo mënee takk soxna waxuma la soo ko kon nag mu mel kon lan moo tax ñuy takk soxna ñu am ak aw askan wu baax mm-hmm. jur ay doom mm-hmm. ndax am na bu bu ñëw ne yonent sallallahu alayhi wasallam nee na na ngeen takk ay soxna yu taaru tey ami doom mm-hmm. ndax ëllëg yawmal qiyaama damay puukare wu ak yeneen i xeet eh, ci ku ëpp aw askan loolu ba ko sallallahu alayhi wasallam di wax waaye dafa wax ne julli quantité waye qualité la don wax ndax waxat nako ci ben hadith dal ne al al muminul qawiyu xayru min al min allahi tabaarak wa taala min al mu'min al daif aw kama qala qaala salaa salaam manam julit bu am katan wér am katan mën jariñ am réewam moo gën jullit bu am kattan wéru te yaafus loolu amul njariñ kon nag lislaam dafa bëgg ku mën a jàng alxuraan mën a tari kaamil alxuraan mën a taxaw di ko naafila te ni méttee mm-hmm. mën a di rukkoo di siggi mm-hmm. waaye mën a tamit di fajal say soxla waaye di faj as euh, faj askan euh, soxla yi askan wi kon loolu mooy développement mm-hmm. moo tax na ñun bi ñu jógee ñu jóg ci aspect maanaam idée euh, maanaam planification familiale planning nag bu ñu koy wax ci arab mooy taxtiit al al usari yi taxtiitul usari yi mooy planifier maanaam famille bi planifier am nañu ko tuddee tanzimu nasli mooy organiser maanaam nasl bi nga xam ne moom mooy am mooy doom yi mm-hmm. maanaam jiwu ji nga xam ne moom ngay am maanaam nga organiser ko mm-hmm. organisation boobu ba tey ci planification la bokk mm-hmm. am na ñoo xamante ne bi dañ leen ko ta euh, tanzimu nasli wala euh, wala wiim am nañu ko tuddee maanaam joyanti yooyu yëpp am na waaye lu ci mën a xew rek maanaam mi ngi nekk ci tanzim maanaam mi ngi nekk ci taxtit taxtit mooy nan mooy planifier maanaam ndax tabax soo kër soo ñëwee jënd terrain bi da ngay xool ban bâtiment nga fi bëgg tabax dem fay architecte bi mu defar la ab plan. lan nga fi bëgg soo fi defee loo xam ne bëgg ko woon war ñu dugal la fi leneen bu ëllëgee bu amee problème yow la. te mën naa yàq màbb lépp. moo tax dañoo wax ne transi euh, euh, taxtiitul usari maanaam planifier famille bi moo tudd planification familiale. planification familiale boobu nag ñun ci la ñuy liggéey. maanaam lan la ñuy liggéey. mooy forcé wu nit ñi ñu dem ci. waaye dañ leen di wax ne ah. in jaa akum faasiqun bi naba in fatabayyanu bu nit andee information boo xam ne leerul ci na ngeen leerlu. baneen bi tamit alquran xam fasalu ahla dikri in kuntum laa taalamuun na ngeen laaj ñi xam ñi xam nag am na ñu xam ci diina chariatul islam waaye am na ñoo xam ci wàllu santé su ko defee soo laajee ñooñu ñëpp da nga ci jariñu kon nag mu leer ni ñu ne yàlla suñu borom subhaanahu wa taala ci boppam moo wax ne nit ñi nañuy organiser seen dund te organiser dund mënta weesu jëkkër ak jabar mm. organiser seenu wàllu nekkin waaye organiser seenu nekkinu ak njaboot waaw loolu nag moo waral aspect bi njëkk ñun ci loolu lañ njëkk a liggéey te yàlla defal ñu ci nag ñu am ci ndam bu rëy rëy rëy mooy fexe nañ ba Sénégal mën nañ ci pourcentage bi ñu ko tàmbalee léegi mais am nañ ci pourcentage 70 pour cent boo xamante ne bi moo ko liggéey ci wàllu planification familiale maanaam maanaam entendre nañ ci objectif boo xamante mën naa laa wax ne tey 70 virgule nangam pour cent am nañ ko dëkk bu sell bii mhm. di Mbàkke Bawal mhm. ak dëkk bu sell bii di tuubaa nga xamante mooy sëriñu Mbàkke Bawal mhm. dëkk dañ ak ba ci région Diourbel sama téléphone du fay ay kilifa laa la wax ay kilifa dañ may woon ci suuf di ma laaj donte xam nañ ko waaye xam nga nit mën naa jàng lu yàgg-yàgg ci daara ja fàtte ko waaye soo ko ko fàttalee da koy daal di jariñ loolu la alxuraan def na wa zakkir inna faati zikra ak say zakaru man yaxsha mhm. kon ñun ñëw xam waxuñu ñun ñoo ëpp xam-xam ñooñu waaye dañ leen di fàttali te mhm. Sëriñ Bamba waxoon nañ ci masalik mhm. rubama uri fatan mu axara maagaaba amaan qablahu wa moo taxoon nag ñun suñu objectif boobu loolu lañ jëg jëm nag fas yéene jàppale ministère de la santé ci wàllu planification familiale maanaam nag planification familiale mooy ba soñu ci nit ñi ndax dañoo demoon ba daw ko ragal ndax ñoom li ñu ko wax mooy day arrêté jur beeg koo wax ma ne la yonent bi salaa salaam nee na na ngeen na di na ngeen di am ay doom na ngeen di am moo waral Sénégal li fi gis am. Mhm. nit ñi di takk ñeenti jabar. am i doom mhm. doo dem ba mën leen a toppatoo doo leen mën a dundal doo leen mën a ngénte mhm. loo am mu yemale ko ci ñoom ordonnance te it nag na la leer ne Sénégal ni addina bi yëpp di doxee noonu lay doxee mhm. maanaam courant bi da ngay nekk am juróom-ñetti doom mais sëñ bi te bu la neexee nga wàcc ci keneen amaat keneen mu amaat juróom-ñetti doom nga sa sa moo war la nga gis almude yi donc yi nekk ci mbedd yi di taxawaalu loolu. Mm. ñii doon ay agresseur ñii doon ay élèves yoo xamante ne bu ñu tekki dara ëllëg. Mm. ñii doon ay leneen ak leneen. moo waral Sénégal boo xoolee léegi nga dégg ñu ne 7 millions la ñu amoon mais bi dañoo jékki-jékki di tëbi ci 7 millions yi daal di àgg ci 17 euh, millions. Mm-hmm. doomi aadama lan moo ko waral mooy njuriñ gi tegaloo gi. Mm-hmm. te njuriñ gi tegaloo gi lan la ñu andil mooy dañuy dem ba ne yàcc na yasar. loola nag kon nag ñun nag suñ rôle ci loola te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kullukum raa'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi même sëriñ bi toog sax maanaam ab sàmm la te ëllëgee danañ ko laaj xam-xam bi ko yàlla joxoon lan la ci jariñ ab société am looloo ñu tax a jóg am na solo euh, jërëjëf xaw Xawsu di fàttali rek ñi nga xamante ni si ñi ngi bàyyi xel seen rajo Baol Média FM 97.1 euh, ci seen émission euh, muy yokk sa njariñ doon lu am solo ñu ànd ko ak l'ONG CRSD mu ànd ak ki nga xamante ni si rek mooy ministère de la santé liggéey bu am solo tey ji nag ñu fas yéene waxtaan lu yaatoo yaatoo ci Covid 19 bi ak it euh, li nga xam mooy euh, soxna yi nga xam ne dañuy war na lor ak it ci planification suñ xaw sa nag am na loo xam ne lu bari euh, jot na ko cee leeral xam naa dañ ko gën a faram-fàcce ci biir bu ko defee damay ñëw ci rek ci Serigne musa sëñ Moussa yéen ñi nga xamante ni si rek yéen nekk ci wàllu sant bi ci wàllu Covid 19 bi ndax point situation bi nga xamante ni si moo am fii ci diwaanu Mbacké bi mën nañ koo xam. sëriñ <coughs> ah, bi auzu billaahi mina waaw ñu ngi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di rafetlu kàddu sëñ xawsu yi jële nañ si lu bëri waaw li nga wax si Covid bi nag comme comme comme Covid bi ak loolu moo ñu fi gën a indi. Mhm. ñu wax ne fi mu toll fi mu ne bon ba ba ay semaine passée daal. Mhm. Mbàkke amoon nañu ay cas. Mhm. amoon nañu une quarantaine de cas mais xam nga cas yi moom mën ngaa xam ñi nga yóbbu rek mais bu ñuy génn ak yooyu yow mën nga koo bañ a xam. Mm-hmm. mais 40 cas yi daal daanaka tas na biir Mbàkke yëpp. Mm-hmm. moo tax nag émission bi ñuy def am ci solo ba nga xamante ne léegi. Mm-hmm. kenn xoolatul fan la ko jëlee. ndaxte bari na ay cas communautaire ci dëkk bi suñu dëkk bi te xam nga ku ne Mbàkke ne Touba. benn dëkk la. ku ne Mbàkke ne Touba. ñii yendu Mbàkke ñooy fanaani Touba ñii fanaani ñii ñii fanaani Mbàkke ñooy yendu ji Touba. Mhm. donc dëkk bi benn la. Mhm. gaa yi nag am na fi. Mhm. te tas na ci dëkk bi. donc fu ñuy toll war nañu jël suñu matukaay. bala ñoo dugg si xoos si kii bi nag dañuy comme fii ñu ngi fiy soog a def waxtaan dañuy fàttali tuuti coronavirus bi. aywa dañ ci solo. waaw coronavirus mi ngi tudd coronavirus mu tudd ñu koy woowee Covid 19. Covid bi ay diminutif la Covid bi mooy coronavirus mooy V V mooy virus. Mhm. D bi mooy de disease. Mhm. benn moo anglais la buy signifier maladie. Mhm. mooy maladie virus corona mala maladie coronavirus. loolu la tudd ñu feeñal ko ca atum 19 2019 ca Wuhan ca Chine mhm. mu dal fa nit ñi dëkk ci commencé benn marché benn dëkk bu am marché bu mag foofu la commencé mhm. ñuy wax ci nit ñi foofu la jóge mu tas ba tas ci dëkk biir Chine ba génn wër ñu tudde ko foofu ci bu yemee ci biir dëkk ba nekk épidémie biir Chine mhm. ba mu génn wër daanaka dëkk àddina bi fi mu ne yëpp dëkk yëpp am nañu corona ñu tudde ko pandémie nag Mm-hmm. organisation mondiale sax waxoon urgence mm-hmm. sanitaire mm-hmm. mondial noonu la ko mujjoon tudde sax ak ku gis nag ni mu mel noonu xam ne wuyu na tur boobu bu baax ndax dëkk yépp fii mun a jaaxale nañu bi mu dugg see suñu réew nag def nañ si ay matukaay commencé former personnel bi informer ñëpp ñi nga xam ne war nañu li ñu war a xam lépp si covid bu ñu def ko pour bu ñu gisee lu leen jaaxal ñu jël ko en charge ñu jël ko en charge booba ñu ngi doon xool bu njëkk coronavirus bi mhm. nan la lay dalee ak nan lay dikk si yow ak yu demee noonu lim si ñun doon njëkk xool mooy mandarga yi yi. Mhm. yaram bi day tàng. nga am li ñuy wax sëqat su wow noonu. loolu mooy symptôme yi nga xam ne moom la mana gis. su ci ba kanam sa baat su ba ci kanam na am yenen sa yaram bi di metti. sa mhm. tànk sa muscle yeeg yooyu di metti. ngay lox nga sonn bu baax yo yo yëpp. moom mooy mandarga yi nga xam ne moo complémentaire ñaar yooyu. Hmm. booba temps nag ñuy wax koo xamante ne yëg nga mandarga yooyu ci sa yaram. Hmm. nga dem nga woote post bi la sant nga woote dispensaire. ñu hmm. joxe woon fi ay numéro comme numéro bi ñuy njëkk a joxe tey jii mooy 19 19. foo amee yëg mandarga yooyu nga woote ci numéro yooyu wax leen fi nga nekk ñoom dina yebal kër docteur ñu ñëw fekk la fa nga nekk pour jëlal la say prélèvement defal la xoolal la ndax am nga jàngoro bi soko ko amee ñu yóbbu la fañ lay faje sa waa kër ñu mettre leen quarantaine pour ñu xool ndax wàñño wàlloo leen ndax boo leen wàllee tamit ñoom ñu bañ a di wàll ñeneen pur pour dëkk bi tas yoi nag metti won na mhm. mais sëñ xaw su dina si ñëwaat parce que loolu tamit diine bañu ko ndax recommandé na mhm. bu jàngoro amee fenn bu fa kenn dem bu jàngo bu ña fa nekk bu ñu génn loolu mooy waral ah, mhm. kii bi mais euh, quarantaine bi mais loolu du du dara du du dara ci affaire santé yooyu signe yooyu noonu lay def nag ba fi mu ne Mbàkke mhm. li ma la wax léegi si cas yooyu ñu amoon semaine passée eggoon na mhm. ay daanaka ñeent fukk depuis pandémie bi amee ak léegi mhm. wante mi ngi wàññeeku bu baax a baax nag ndax temps yi di nga dégg district bi ñu woo leen am na lu kii xew fii dafa ñu dem seeti jëli mais bu ñu demee du du positif muy négatif loolu la nit ñi bëgg ba nga xamante ne lu waay lu la jot rek bu por période corona amee ak bu période corona amul lu la jot nit ki rek da nga war di daal di daw hôpital loolu la ñuy wax recours précoce soo yeewoo sa bopp di metti rek demal hôpital ñu seetal la lan la bala moo compliqué bay jur leneen lu ko gën a metti waaw loolu ci loolu la ñu nekk nag bi Covid bi ñëwee nag ñu xool ne nit ñi sax léegi dañoo ragal a dem hôpital sax far faju ji mm-hmm. loolu nag muy loo xamante ne lu doy waar la mm-hmm. parce que ñoom nit ñi feebar rek moo leen tax a jóg moo tax a jóg loolu pour ñu dem lu leen dal ñu yóbbu ñu yóbbu ko foofu nag mhm. boo demee ba nga xamante ne ñu ne ku dem ko foofu ñu ne la da ngaa corona Bu nit ñi dematuñu mhm. loolu mooy eh, incompréhension mooy xamuñu woon lu ñuy def yooyu mhm. parce que ndëkk ma da ngay ñëw rek bu ñu la tegalee thermoflash bu sa yaram tàngee bu ñu la beree nii tuuti ndax dañ lay xool ndax yow sa yaram tàng na parce que mandarga bi pour ñu yan matukaay jël pour rek nit ñi ne bu ñu la tegoo thermoflash bi rek génn ne am nga corona nit ñi dawatuñu foofu nag te du loolu. Mhm. corona bi tàngaay i déggal thermoflash bi tàngaay yaram bi rek lay feeñ. Mhm. lay wane su ko defee nag su amee yeneen màndarga bu ñu la laajee bu njëkk ba ndax tukki nga ñëw nga def nga lii ak yooyu. Mhm. ñu mën a euh, orienté seen seen seen diagnostic bi li ñuy wax ñu xool diagnostic différentiel. parce que am na virus yu mel nii yu bari yu joxe am na ay feebar yu mu nuróol ay sibiroog yooyu yëpp xaw na ñoo nuróo ay yenn si. loolu lépp nag bu ñu ko defee ñu xool li nga xamante ne moom moo ci nekk li leen wuutale ba ak yow lu ñu lay def soo joree ñu yóbbu la defal la prélèvement ñu defal la ko soo ko jarul ñu bindal say garab nga dem mhm. léegi nag boo demee ba nit ñi ragale ñu dem hôpital nag te hôpital li si nit ñi di daj mhm. di fay personnel bi di tabax structure yu baax nit ñi bañ koo dem jëli ndax coronavirus loolu dafa xaw a doy waar mhm. ONG bi nag fii la CRDS bi ni ko sëñ bi waxee léegi cadre de religieux pour la santé et le développement nga xam ne mm-hmm. seen sigle boobu moom dafa vaste trop ëmb na lu bëri xam nga moom mm-hmm. ab réew boo ci jëlee santé ak développement rek daanaka ca laal nga composante yi am solo ci dëkk ba mm-hmm. ndax développement kenn mënu ko am te wër gi yaram amul ñoom seen objectif bu njëkk ba avant lii di am parce que am nañu benn rencontre de ñaari at ci gannaaw bu ñu defoon district Mbàkke woo kilifa diine yi nekk ci gox bi yépp ñu waxtaan lii weccante xalaat planification familiale nous ko diine gisee. Mhm. waaw liñ ci waxtaan nak lëm beuri trouvé nañ ci ay solution ba amna ci yo xamantene mom mhm. d'accord nañ si. Mhm. les diiné bañul planification familiale. ndax bañ fekk nañu gouvernement bi. waxul ku ko neex rek moy def planification familiale dafa wax ne mom dafa wax couple. moytu len nef ci bir sëy ñi sëy la wax ngeen moytu nef parce que bo gisee ñu wax lool dañu gis ne. nit ñi bu njëkk ba jigéen ñu daan am doom di ci loru dafay bari mm-hmm. bu ñu amee doom doom yi bu ñu bala ñoo am juróomi at ñi siy loru dafa bari ñi nga xam ne sax bala am at sax ñi siy loru dafa bari mm-hmm. te bu ñu defee seeni xayma gis nañu à part jàngoro yi ay pneumonie ay ira mm-hmm. mooy soj di dal xale yi ay biir yu daw yeeg yooyu yu si gëna bari moo loolu moo koy waral te loolu boo gisee lu muy waral noonu day indi xiiboon bu bari te xam nañ ne tamit xale yu tegaloo nàmpuloo ba doy sa yaay amuloo am beneen doom doo mën a nàmp boo mm-hmm. tàmmul yenn lekk yi rek foofu ngay jële xiibon mm-hmm. te loolu nag moom lañu tax ne gouvernement bi ne bu ñu boolee loolu ak ay mesures yu baree bari ak euh, yooyu yëpp moo tax ñu indi ay système yu bari mm-hmm. ba teg si nag bi nga xamante ne ñu ne benn bi tamit nañ leen xool jigéen ñi tamit nañ la ñuy soryeele sonu njur ñu jéem a dab dabal li lislaam wax Mhm. parce que dégg naa borom xam-xam diine yi di wax ne diggante ñaari ëmb lu mu bon bon war naa mat mhm. fanweeri weer ak ñett mhm. ñu ñu ñu jéem a ma def loolu comme jullit yi ak olof yeeg ñëpp diine bu njëkk ba daanañu def loolu di dem di takkal nit ñi ay téere pour ñu soriyaatool njur mais boobu am nañ inconvénient parce que dañ la naan boo ci sangoo boo ko amee dootoo am doom bàyyi demee noonu léegi nag yooyu comme ni ko sëñ bi waxee léegi tubaab bi moom la indi nii nag defal ko ay façon yu baree bari ku nekk boo ñëwee ñu ne la ban méthode nga bëgg pour soriatool sa njur parce ñoom li ñu la wax ne la soriatool sa njur la ñu bëgg gën gaa euh, bari juróomi at bi gën gaa néew nga yem ci ñetti at doom yi di magantee lu mu néew néew ñetti at xam nga loolu waxuñu arrêté jur mm-hmm. te diine l'islam loolu la contre mm-hmm. arrêté njur mm-hmm. te fi mu ko bañee sax mooy boo naan aw ma lu ma leen dundaleeg mbaa danañu xiif bi di ñëw mu ne loolu yàlla moo ko yore lu dul loolu moom li ñuy organisation de la famille. Mhm. nee nañu keroog dégg nga borom xam-xam mu ne lu li yàlla ëmb ci loolu nañu xool lañ ko fa tere rek moo gën. Mhm. waande biir couple ba lu ñu waxtaan ba d'accord ci. Mhm. yàlla mën na koo nangu te comme gouvernement bi waxul ñu arrêté njur mi. Eh, espacé leen ko wax. bu ngeen ko espacé te depuis bi ñu ko commencé espacé ba léegi. ci depuis enquête yi mujj yi 2016 yi génnoon. gis na ne xale yi doon gaañu wàññeeku na bu baax a baax a baax. jigéen ñi nga xam ne dañu doon am doom di di di ñàkk foofu seen bakkan hmm. wàññeeku na bu baax a baax a baax hmm. loolu nag moo tax ñu ne nañu gën a ñaax ñu defoon seeni enquête ba gis ne daanaka Sénégal fi boo fi xoolee jigéen ñi nekk ci buumu sëy di def planification familiale téeméer boo jël hmm. ñaar fukk yi ak juróom daanaka ñu ngi def ñu ngi jël benn méthode di def planification familiale loolu nag am na ci ñoo xam bi ñu leen di laaj tamit ci enquête yi am na ñu bëri ñoo xamante ne defe tamit planning yooyu. Mhm. mooy sor moytuloo moytuwuñu nef. Mhm. ndax boo leen laajee lu si bëri ah sëñ bi àndu ci mbaa ak leneen ak leneen yu demee noonu ak yooyu ay ay ay nu mu tuddati effet indésirable ak yooyu mhm. te loolu moo garab yëpp a yem. aspirine sax paracétamol lool laal. am na lu mu mën a jur leneen. yooyu lépp lépp loo jur rek loo jël rek. dana faj lii. mais am na inconvénient bu ndaw hmm. loolu moom mooy àddina bi ci garab yépp noonu la mel hmm. mais lañuy xool nag danañuy peese hmm. njariñ li mu la mën a indil ak lor yi mu la mën a indil ñu jox ñu jox la ñu jox la bi nga xam ne moom mooy njariñ li ëpp li mooy ñu ne la nga moytu nef soo ko defee di nga wér sa doom yi nga am dina ñu wér dinga leen fa mën a bàyyi dem def yeneen activité sëñ bi dem liggéey soxna si dem liggéey comme ça boo ko continuer def développement am mais bu xam nga bu loolu amul nga am ay xale yuy nef yu xale yu nef xiibon doo jóge hôpital da ngay dem hôpital ñu lay jox ay garab ay ay doom di la ko jox di la jox sax ay genre pat yi gars doon indi fii ay plompeeg yu demee noonu pour nit wàññi xiibon bi tellement que dafa bari woon loolu yëg li ko euh, bu ñu wàññee lii nag nit ñi nàmp lu bon bon jigéen ñi nàmpal seen doom yi ñaari at tok tuuti ëmb bala ñoo ëmbiwaat mu mat ñetti at ak nangam doom yi dinañu wér dinañu dëgër te loolu bi ko gouvernement bi def ba léegi mm. moo tax mu bëgg koo yokk ba koo xamante ne bëgg ngaa soriyantool sam jur mm. bërëbu fajukaay yi taxaw di la mm. xaar mm-hmm. léegi nag looloo tax nag CRD bi ne loolu wax leen ci jigéen ñi ak ñi nga xamante parce que du ñuy rek du ñuy def planning rek mm-hmm. parce que ñàkk yi xale yi doon yóbbu ñuy ñàkk xam nga ñàkk yi am na feebar yu am doole yu muy aar yoo xamante ne bu nit ñi ñàkkuwul te hmm. yooyu dafay ñëwaat nekk comme lii nekk genre épidémie di dal ay xale yu bari hmm. te nit ñi li ñu demul ñàkk ji moo ko def moo hmm. moo tax ay feebar sa bopp day metti mbaa dara nga ne doo dem hôpital ba toog ba feebar ba sa kër ba sonn ñu ñëw jël la yóbbu la hôpital bala ñu laa xool sax ñu ne na gaañu na te léegi dañuy ku gaañu dinañ la defal test ndax am nga coronavirus bi am déet waaw ku ci gaañu am coronavirus. Mm. te kenn deful mesures yi ñu war a jël ñu yóbbu la ci suñu sangukaayu néew yi ñu sang la foofu. Mm. ña la doon sang yëpp boo moytul bu nañ fa jógee mën nañ tas jàngoro bi te loolu dafay gën a bari. Mm-hmm. moo tax ku ñuy xool ndax nit ñi am nañu coronavirus. te léegi bala ngaa egg foofu nag. Mm. sa bopp di metti nga jóg dem hôpital suñu la nee am nga coronavirus. béréb bi ñu koy fajee dañ lay yóbbu feneen foo xam ne dañ la fay faj ba nga wér nga sa kër. moo gën fuuf ngay toog di di di di sooxaale corona bi sa wàll sa waa kër yëpp ba nga mm-hmm. xamante ne yow boo fa jógee daanaka sa waa kër yëpp dañuy feebar mm-hmm. topp si yow noonu loolu wóorul nga jóg mm-hmm. lu la dal rek nga dem hôpital ñu xool la garab bu la mën a faj dinañ la ko jot soo yoree corona ñu yóbbu la faj la loolu nag moo gën parce que corona du xont du gàcce nga yor ko ku mm-hmm. nekk mën na laa dal fii nit ñi dégg nañu kilifa yu mu dal mm-hmm. soo demee ci bitim réew yi dégg nga ay premier ministre ay nangam yu mu dal mm-hmm. gis ngeen président bi bër bërki démb ñu naan moom la am wala amu ko uh-huh. te eh, baax xam nañ ne daal jabar ji am na ko moom. Mm-hmm. kon moom gaañu na nag léegi mais amuñu ko am na ko wala amu ko loolu wóoragul. Mm-hmm. mais daal xe moom li ñuy wax virus bu démocrate la xoolal fii lay dal xoolul faa lay dal moom daal ku ko may bunt. Mm-hmm. mu dal si yow. moo tax structure sanitaire yi bala nga faa dugg. dinañ la jox dispositif de lavage des mains nga raxasu say loxo. ba ñu jox la gel am na yoo xam ne dinañ la def test boobu xool sa yaram nu mu tàng mhm. soo demee di nga takk masque booy dugg si biir soo demee fa ngay range ka nga soxla dinañ leen respecté loo distanciation sociale bi nga xam ne loolu la mesure yi mhm. bu ñu bëggee vivre avec le virus mesure phare yi loolu la ñuy def fu ñu mën di nekk mooy ngay takk masque mhm. moytu ndaje yi fu ngeen toog diggante bu ngeen nekk seen diggante na mat lu mu néew néew genn ñu moytu nuyoo joxe loxo yi. parce que bu ñu demee ba ci kanam fu ñu ñëwee ci jàngoro bi ni muy wàllante ak mesure préventive yi. dinañ hmm. si gën a développé. comme ça dinañ ci gën a yaatal incha allah moom euh, jot na am euh, yéen lan ngeen ci def seen taxawaay. Euh, bu ko defee rek xam naa damay dellusiwaat rek laata may jox oustaz laata may jox sëñ Abdoulaye Mbacke di sëriñu daayira mën naa ko wax oustaz ndax oustaz la <laughs> bu ko defee rek xam naa damay daal di ñëwaat rek ci yow sëñ musa ci ñi nga xamante ni si ñi ngi ñi ngi ci réew mi te gëmuñu lii nga xamante ne si rek moom mooy coronavirus bi munoo wax ba nga xamante ne si euh, euh, njur toj na seen bopp. ah waaw sëñ bi loolu xam nga moom nit moom xam nga fii lañuy wax ne société moderne la. Mhm. ku nekk yaay gëm loo gëm. Mhm. parce que sénégalais yi tamit ñuy wax ni ñëpp ay nit la ñuy waxal am nga xalaat. Mhm. te fii ku ne gëmoo ko te nga am mbokk bu nekk bitim réew mu daan yónnee xaalis mënatu ko yónnee. nga gis la fa xew yaa ngi seetaan télévision bi. loolu lépp boo bëggee ne gëmm ne gisuloo jant bi tamit loolu kenn mënuloo la dara soo hmm. nekkee suñu dëkk bi nag ñu wax ne mbas mu mel nii rek am na nga dégg suñu xalif général génn deux cent million hmm. joxe ne maa ngi ci jàppale ci xeex bi ah loolu doyu la fan yee passé nee na virus bi hmm. yàllaa ko yónni comme ñun ñëpp ay jaam la uh-huh. loolu kay léegi bu fekkee ne yow taalibe nga nga bëgg sëriñ bi wax lii nga ne yow gëmuloo malade bi ba léegi lan nga gëm xam naa ne bu dee ñi nga xam ne ñoom li sëñ bi indi waxoon ci dëkk bi moo tax ñu ñëw fi liggéey ak jaamu yàlla jaamu yàlla surtout ak jàng alxuraan ñeneen ñi nga xamante ne nag dëkk bi moom daanaka commerce bi daanaka neex na tamit loolu moo leen fi indi duñu bëgg commerce bi yàqu te buñ ci baree ay moroom gëmuñu ko loo ne nañ tëj marché yi nañ nettoyé ñi ñu ne lii maladie bi amul dañuy bëgg a yàqal li ak yooyu hmm. mais loolu ku gis nii dëgg dëgg ku naan maladie bi amul moom hmm. ku tiim jant bi ne gisoo ko. kenn mhm. mënu la forcer ba nga gis ko. Mhm. mais nag kiy def loolu. Mhm. war na am xalaat ne. dafa war a moytu comme ñëpp. ndax su fekkee ne moom am na loo xamante ne gara maladie bi du ko dal. wala du feeñ ci moom. bu ko jàng bu ko jëlee. da koy yóbbu këram. te jàngoro bi foofu la gën a garaaw boo ko yóbboo sa kër ñi nga gën a bëgg ngay wàll su dee góor la sa jabar ngay wàll su dee jigéen la sa sa sa jëkkër ngay wàll ak say doom say doom yooyu bu ñu demee wàll seen maam seen maam wax nañu jàngoro bi fee euh, aay na trop si mag ñi ak ñi nga xam ne dañoo am feebar yu li ñuy wax maladie chronique ay diabète ay tension artérielle ak ñi nga xam ne dañoo am yaram bu baree bari obésité loolu jàngoro bi aay na si ñoom lool te ñooñu ñëpp mi ngi ci suñu kër yi léegi nag koo xamante ne nit moom dafa war a moytu fii mu ne. Mhm. pour bañ a wàll ñeneen ñi ci des. Mhm. pour bañ a wàll ñeneen ñi ci des loolu moo tax nit ñi sur ñëpp jël war a jël seen bopp ne maa ngi doomu jàngoro bi damay jël samay matukaay yépp duma ko wàll kenn. Mhm. léegi nag matukaay yooyu ngay jël ba ne doo ko wàll kenn nag looloo tax yow kenn du la ko mën a wàll. te mesures yi gouvernement bi digle. kenn digle bu ko ñëpp toppee. léegi. jàngoro bi arrêté. parce que jàngoro bi nekkul ci ngelaw li di taxawaalu. Mm. xam naa ne xéewal yàlla indi su nekkoon ci ngelaw li taxawaalu taw bi bu ñëwee léegi mu wàcc ko ci suuf. waaw léegi nag loolu amul nag léegi nga toog ne gisoo ko. loolu mm. moom man xamatuma ci yow dara mais daal da nga war a fexe daal ba. Mm-hmm. bañ a développé jàngoro bi. ndaxte gouvernement bi mënul tëj nit ñi ñu toog ni il faut ñu liggéey président bi ne vivre avec le virus. Mhm. vivre mhm. avec le virus nag mooy ñëpp jël seenu matukaay su ko ñëpp defee rek. Mhm. chaîne bi léegi ñu dagg dagg ko. parce que bu bu ñu wàllantewul kenn rek ñëpp jël seen bopp ne ay cas communautaire lañu. naa faxe ba du ma wàll kenn mhm. naa fexe man tamit ba du ma wàll kenn mesures yi nit ñi wax nga mhm. respecté ko bàyyi loxo joxe loxo bi di mhm. takk sa masque foo toll di raxasoog saabu foo toll ngay raxasoog saabu waxtu yi julli yi nga doon def juróom yooyu nga doon def bala ngaa jàppati léegi da ngaa war a raxasoog saabu njaboot gépp dañoo war di raxasoog saabu li ngeen di jàppee setala yeeg loolu lépp dangeen ko war di raxas parce que bu jàngoro bi duggee ci kër gi ci loolu nit ñu bëri di laal ci la jàngoro bi mën na cee wàllante tamit loolu hmm. waaw dinañ si gën a ñëw si kanam incha allah rabbi dinañ ko gën a yaatal bu ko defee rek euh, yaa oustaz euh, moom ci wàllu diine ji mu mel ni yaatu na dégg nga liñ fi jot a wax Euh, di fàttali rek ñi nga xam ne nii ñu ngi euh, topp ci 97 euh, point 1 seen rajo Baol Média FM ñenn ñi di ñu topp rek ci Facebook bi Baol Média Facebook ñi nga xamante ni si rek ñu ngi ci YouTube bi mën nañoo dem Baol Média 24 24 rek mën a am en direct li nga xamante ni si àdduna wërngal këpp. yaa Oustaz dégg nga li nga xamante ni si moom la ñu wax ci wàllu planning xam naa dinaa dugg ci Covid 19 bi sax mais planning bi nga xamante ni si nag ñi ngi koy wax ndax l'islam moom wax na ci li jëm ci soreel njur ak. yu ni mel. alhamdulilah bismillah. subhaanaka laa xilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka anta al-aliimu al-xakiim wajhal kalaami raashidan wa murshidan wa fikrati nawwir wa qalbi arshida jërëjëf sëñ bi waa lislaam moom maanaam bu fekkoon day wax ci genn wàll di di bàyyi yene di ci genn maanaam day wax ci lenn bàyyi leen rek boo dañ naan diine ji ma tut waaye moom dafa dugg fépp fépp fépp fépp fépp bàyyiwul fenn ndax ki ko doon maanaam borom lislaam daa nekk aalimul xay bi mooy dafa xam kumpa xam li mm-hmm. ñëwagut xam lépp mm-hmm. moo tax bayul gannaaw dara mm-hmm. ba ci waaw lii ñuy waxtaan ne defe naa kon ñun dañ ciy wax dalil yi nga xam ne liy wane ne nangam dagan na wala dëgganut wala dafa araam wala dañ ko sib wala nangam kon foofu la ñuy foofu la ñuy waxe waaw kon ni ko suñu xaw si waxee am na ñu ko tudd tudde tansimu nasli nose famille bi maanaam am jur Mm-hmm. am ñu def taxadiidu nasli muy li ñuy tuddee limité. Mm-hmm. bu dee ci arab ba tey bu dee ci jamono yu njëkk ñu ngi ko tuddoon alxaslu. alxaslu mm-hmm. mooy li ñu wax dasal dana dana danañ ko leeral. léegi nag ndax dagan na wala dëgganut. léegi loolu li ci gis-gisanu lislaam mooy dana am foo xam ne dana fa dagane. am foo xam ne danañ ko sibe am foo xam ne dafay nekk lu war. nga xam ne fa faaw nit ki da ko war a def. Mm-hmm. am foo xam ne dafay nekk lu araam. Mm-hmm. kon at mën nga ne at yëpp mi ngi jëmmi nit ki rek la ñuy xool moom maam moo ci moo ci kan. Mm-hmm. waaw loolu defe naa ci atte lislaam yi boo ci dee dong ko ci fekk. li ñuy wax itam képp koo xam ne yàlla ñuy déglu. te am ci am lënt wala kii dañ lay tegtal fi nga xam ne boo demee fekk ko fu mu leer naññ. boo demee ci téere bu ñuy wax bay na saa'ili wal faqih. maanaam defe naa euh, téere boobu boo ci demee ci xëtu. ñett téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom 285. Mhm. da nga ci fekk li ma lay wax muy ab laaj boo xam ne dañ koo laajoon Mouhamadou Bakary Ismaïl mi nga xam ne moo téere moo taalif téere bi ñuy wax al fiqhul waadi mu mhm. defe naa ñëpp xam ko ne borom xam-xam bu bu nawloo lool tam xóot xam-xam lool lool lool lool. Mhm. lii ma lay wax boo dem taalif téere boobu moo ko taalif boo demee itam da ko ca fekk. Euh, euh, su ko defee. kon day ay xeeti xeet yoo xam ne dañ koy def tam wute waaye nag léegi. ndax dagan na wala daganut ah kay bu dee li ñuy wax alxaslu dagan na mooy li ñuy wax dasal danaa wax danaa ko leeral waaye nag laataa ma koy leeral damay wax hadis yi nga xam ne moom ci laay tegtaloo ba noppi lii wane ne hadis yi wane ne dagan na mooy ku ñuy wax jaabir ibn abdullah bokkoon ci sahaaba yi àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa naa ñun ñëpp xam nañ ko nee na kunna naxsilu ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wal quranu yansilu dane ñun ci jamono yonent bi sallallahu daanañ def li ñuy wax dasal fekk alxuraan a ngi wàcc te xam nga alxuraan saa bu daan wàcc saa bu saa bu dara xewee lu ñu war a tere da koy daal di da koy da koy day daal di wàcc ab aaye ne bu leen ko defati moo xam lu mel ni sàngara la moo xam yeneen ak yeneen waaye nag loolu la muy tegtale mooy suñ borom noppi gi ci noppi te xam ne ñu ngi koy def loolu mooy tegtale dagan na mhm. boobu mooy hadis bu njëkk bi kooku jaabir ibnu abdullah moo ko nettali moo ko nettali bu ñaareel bi mooy euh, ba jële nañ ci saxiixu muslim maanaam jël nañ ci téere bi muslim defe naa ñëpp xam nañ ko ci nettali ko tu hadis nga xam ne hadisam ginnaaw buxaari la ñu wax ne moo ci gën a wér daa waxoon ne daa wax ne am na waay bu ñëw ba tey mi ngi ko jëlee ci jaabir ba tey mu ne am na waay bu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan ne ko inna lii jaariyatan hiya qaadimatuna wa saaxiyatuna wa ana atuufu alayha wa ana akrahu an tahmila fa xaala ihsil anha in chita fa innaha sayaatiha ma qadira laha manam ci arab bi moo nekkoon waaye dane am na waaj ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam daane ñun day dañoo am ab jabéer maanaam jaariya muy jàmbu jigéen boo xam ne mooy suñ surga bi ñuy liggéeyal moo ñu suuxatal suñuy garab ak yu demee noonu daan nag man nag danaa faral dem ca moom waaye bëgguma mu wannu lor mhm. nee na loolu la waaj wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam suñ eh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan ne ko ihsil anha ihsil anha maanaam mooy na nga na nang na nang ci na nga ko daslu mhm. dasal googu nag ñu ko xamul ci wolof arab di ko wax xaslu mooy koo xam ne maanaam bu joteeg soxnaam ba nga xam ne ndox mi sabab a am doom mi ngi génn mu génn ko tuur ko ci bitti. Mm-hmm. kooku loolu mooy alxaslu mooy li ñuy wax desal. kon defe naa ñaari xadis yooyu doon na sëkk ci tegtal luy mm-hmm. wane ne dagan na. Mm-hmm. Eh, ndax ñu bañ a fàtte ne itam mbir bu taxawee. kii da koy defee nii kee da ko defee nee kee da ko defee nee waaye bu fekkee ñoo bokk jubluwaay. jubluwaay bi ñu koy maanaam bi leen bi leen tax a jóg. mu mel ni kii kii lekki loxo kii lekki kuddu kii roote kii kii dugg sareet bi dem ki dugg oto ki dugg leneen ak ku ci ne daa bëgg a dem rek mhm. maanaam loolu jumtukaay la bu ñuy bu ñuy bu ñuy jëfandikoo mhm. kon ñi dañ ko daan jëfandikoo ci ne mhm. bu njëkk moo kii boobu lañ ko yoon woowu lañ ko daan defee kon loolu mooy li ñuy wax euh, alxasal boo demee ci borom ñeenti ngir yi nga xam ne defe naa ñun même bu bu bokkul bu dee ku bokkul ci tarixa wala yu tam ñu ci bari itam téewut maanaam ci ñooñu la kenn ci ñeent ñooñu ngay topp muy imaamu maalik Mm-hmm. imaamu Saafi imaamu Abu Hanifa imaamu Ahmadu uh, Ahmadu ibn Hanbal mm-hmm. naa ñeent ñooñu bu ñu naan borom ñeent ngir yi al aymatul arbaha ñooñu lañ topp mm-hmm. te nee na ñeent ñooñu ñëpp daganal nañ ko waaw bu fa eh, ñeent ñooñu ñëpp daganal nañ ko am na sart itam nag yuñ sart ci ki nga xam ndax fi ne sart yuñ sa yuñ sart yoo xam ne lii tax mu mu maanaam nit ki def ko te kenn du ko sib du araam du def dara am na sart am na ay sart benn bi ci njëkk mooy soxna si ci boppam na ci ànd. Mhm. maanaam du du caagéenu mbir moo xam ne yow sa mbirum bopp la rek. Mhm. moo xam ne yow yaa ci am xalaat moom amu ci xalaat. loolu boo demee ci téere bi ñuy wax xalil ibnu ishaq mhm. muxtasar sa xalil bi nga xam ne boo jàng fiq mooy téere bi ci gën a mag nga xam ne daanaka moom ngay mujje defe naa ñun ñëpp xam tënku ci ngirum imam malik boo demee lu ñu wax ji ma lay joxe da nga ko ci fekk mooy fiir maanaam dagat na waaye nag fiiri da sawjati ci ngërëmul soxna si defe naa loolu bu fekkee yow mi jàpp ne xëy na nii lu jéggaani la wala yooyu kon maa maa ngi ko indi indil ngir mu jege la nga xam ne fiqhu maari bi nga xam ne bu rawatina bu fekkee murid nga wala tijaan mhm. yaakaar naa loolu Sëriñ Tuubaa ci lañu tënk nañu tënku leen ci ngiru Maalik te mhm. téere boobu may wax ci ngir Imaam Maalik la la lay kii mhm. boo demee ci Xalil ibnu Isxaaq boobu nga xam ne ñun ñëpp ñi jàng xam nañ ko boo demee nee na dagan na waaye nag ci kaw ngërëmul soxna si muy benn euh, bokk na ci itam ci yi yi tax nga def ko te kenn du ko sib du araam mooy nga nekk maanaam lu mel ne étrange nga nekk foo xam ne dëkkoo fa foofu itam nee na ab sart la ci boo xam ne boo ko defee kenn du ko sib doo ci am bàkkaar dara du la ci fekk mhm. wala nga nekk nga yor liggéey boo xam ne nga ne doom dana la gàllankoor aw kaana mashxoolan bi muhimmatin yaxsha ay yamnahul waladu min tanfisiha maanaam nga yor liggéey boo xam ne jàpp nga ne doom dana la gàllankoor ba liggéey bi ni ko bëggee doo ko mane nee lu ba tey dagan na wax nañ xel ne waxuma sama xalaatu bopp la wala ma dégg ko wax ci ko ah loolu it nañ ko nañ koy bàyyi xel ma kii baa ngi nii matin loolu su ko defee loolu itam euh, ab sart la ci wala boog ne soxna si tawat soxna si tawat bu boobaa bu dee fu mel noonu itam dañ ci dellu ci xam-xamu docteur maanaam médecine nañ bàyyi xel ne l'islam boo téere fiq yi ñuy jàng fi mu ne yu ci bari damay jiilale médecine sax waaye aada aada sax l'islam da ci faral di dellu yaakaar naa mm. loolu boo demee ci téere mi ngi ne fa gàññi mm. am na ci atte yoo xam ne ci aada lañ koy delloo am ci yoo xam ni ci wàllu médecine lañ koy delloo mooy ni ñu koy faral di defee bu ñu bëgg a woor nit ki xool ba xam mën naa woor wala dut loolu yaa ngi dellu ci borom xam-xam docteur boo xam ne bu xam li muy def la nag taragal yàlla waaw ñaari sart yu faaw mu boole ko na xam li muy def taragal yàlla su ko defee kooka lu mu la wax boo juyoo moom boobu da ngay daal di bëgg xaru wala taqtulu anfusakum inna allaha kaana bikum rahiman waaye nag wala wala tulxoo bi aydikum ila tahluka maanaam bu leen sànni seen bopp ci alkande loolu suñu borom moo ñu ko aayoon su ko defee kon loolu ay sart la yoo xam ne Euh, ngant la ci li tax nit ki mën a def li ñuy wax euh, planique mhm. mu ne nag fa in lam yakun hunaaka xusrun mhm. jaasa mahal karaxati mhm. dane bu fekkee leen ngant amul nee na dagan na waaye nag sim nañ ko nga xam ne daal yow maanaam daa nekk sa xel rek amut benn illa ju la ko tax a def nee na dagan na waaye nag sim nañ ko su ko defee loolu euh, ba tey ay tegtal la ci ana fana ana maanaam ana fan lay ware ana fan lay ware fi muy ware mooy bu wóoree ne kii maanaam eh, ci misaal bu ambaatee mën naa ñàkk bakkanam wa ilaa boobu bu ñàkkul bakkanam ak dundam daanaka dana ci seexu seexu goo xam ne daanaka dootu amati njariñ kon bu booba waaye nag yaa sukkandiku ci ni ma ko waxoon benn mu xam ko ci boppam baa docteur bu bu xam fa wax ko ko bu boobaa nag léegi kooku moom dama jëlale sax ñu naan dagat naag nangam waaye bu boobaa day daal di nekk war day daal di nekk lu war kon boobaa lañ doon aaye muy taxadiidu nas bi muy limité ko mu yem fa boobaa mooy far nekk loo xam ne lu war lay doon maanaam nga xam ne léegi kon dañ koy arrêté foofu dootu amati doom ndax loolu bakkan lislaam da koy sàmm kon boobaa foofu nag waajib lay nekk maanaam waajib farata lay doon bu fekkee ne euh, wax naa léegi fi nga xam ne dafay dagant ak yem ci waaye dañ koy sib fi nga xam ne itam dafay maanaam euh, dafay araame dafay araame dafa naa ñii ma jiitu junj nañ ko mooy bu dee loo xam ne dangaa jàppe ne nit bu xëy na bu ay doom amee duñ la mën a dundal wala nangam nangam maanaam daal nga xam ne da nga koo teg ci wàllu kii bu baax moom bu fekkee ci cadre boobu rek nga ko teg bu moom moom moom maanaa day daal di araam ndax wa maa min dabbatin fil ardi illaa alaa rizquhaa defe naa ñi ma jiitu woon junj nañ ko kon boo euh, bu fekkee foofu nga ko teg moom yaa ngi bëgg a dugg ci pas-pas bu yàqu boo xam ne la sun borom waxoon yaa ngi koy daal di bëgg dindi kon baa moom day araam bu fekkee foofu képp képp képp képp la tegu kon baa moom dañ koy day day day day day day day araam euh, dafa am itam ay ay façon maanaam defe naa xas lu tudd ko ci léegi muy li ñuy wax dasal am na lu ñuy wax taxqiimul mu aqat am lu ñuy wax taxqiimul mu abbat taxqiimul mu aqat mooy. Hmm. ñu def ko loo xam ne day diire fekk sàngam maanaam du fi ëmbat. nga xam ne délai lay doon moo xam ñetti at moo xam ñeenti at moo xam nu mën a toll mhm. dagan na a taxqiimul mu abbat nag mooy li nga xam ne dañ koy defal maanaam dootu amatu doom mukk mhm. te amul illa ju ah, illa ju tax ju mel ne ji ma mhm. kon bu boobaa loolu moom dañuy wax ne dañ koy aaye lislaam da koy aaye loolu moom dafa dafa dafa dafa dafa araam su ko defee façon yi ñu koy defee itam dafa nekk ay façon yu bokkul ndax ni ko waxee bu njëkk noonu ma ko waxee mooy kuy jot ak soxnaam ba nga xam ne ndox mi day bëgg génn mu génn ko tuur ko ci bit loolu bo pexe moom lañ ko daan defee booba xëy na foofu la pexe tolloon <laughs> buñu demee ba suñ jëm jamono yi mag ñi itam danañ koy faral defe ci bind gàllaaj maanaam goo xam ne nit ki da koy takk mm-hmm. bu dee ñi nga xam ne itam suñ mbokk yi xëy na séeréer wala ñu mel noonu ñoom danañ ko defee lu mel ni takk galan takk galan bu dee ci wàllu médecine defe naa moom it danañ ko defee ci lu mel ni naan ay comprimé wala xëy na pikiir wala ku mel ni suñu Moussa Dioum defe naa. ay waaw. waaw ay ay kawas wala yu mel noonu. Uh-huh. Euh, su ko defee kon kenn ku ne. Mm. dafa am xëy na façon boo xam ne moom ko defee wuuteeg defe façon yi moom. Mm. du ci dara ni ma ko waxee woon léegi jumtukaay. kii mm. kii dugg sareet ak kii dugg oto ak kii dugg avion ku ci ne. Mm-hmm. daa jëm ci dëkk ba rek. Mm-hmm. kii lii la am kii lii la am kii fii la xelam toll kii fii la man-manam toll. Mm-hmm. loolu moo wuuteel moo maanaam moo wuutale. Euh, moo wutale maanaam euh, defin yi su defee loolu ay ay ay ay ay ay ay tegtale ay ci yi nga xam ne euh, kii la maanaam yi wane ne dagan na ak anam yi wane ne dafa araam ak yi anam yim yim araame ak yu mel noonu mhm. xëy na nag ñun ci ëpp suñ suñ wàllu suñ wàllu kii maanaam wàllu communication mhm. dafa ne dafay nekk jafe-jafe lool lool lool lool lool ndax mm-hmm. baat yi ñuy jëfandikoo dafa am baat yoo xam ne boo ko xasee tudd rek mm-hmm. maanaam ñu ragal fi ne mbir mën nga koo tudd tudde nii mm-hmm. maanaam ñu ñeme ko lool waaye mën nga koo tudde nii maanaam ñu ragal ko ni nga xamee ne léegi baat mën naa tudd nii man maa mën ngaa wax lii maanaam mu nekk wax ju rafet mën ngaa wax lii maanaam mu nekk wax ju ñaaw ci misaal te maanaam menn ci misaal bu ma bu ma joxoon misaal fi nii ci misaal nit boo ne an sa an sa an sa an sa baay mhm. fi nii du ko gis mooy da bu ko dara waaye ci misaal nit ki boo ne ko an sa sa jëkkër yaay anam fi nii <laughs> ba ko waxee mu xuloog waaye fi nii ñaari baat yu benn la ñaar ñoo bokk maanaa waaye maanaam jëmmi jëmmi jëmmi jëmmi maanaam ñoo maanaam wa euh, waxeenu waxe waxeenu wee rek waaye fi nii ñoo bokk menn maanaa su ko defee itam xëy na bu dee ci wàllu ci wàllu ci wàllu ci wàllu lislaam ni nga xam ne noonu la ko euh, sëñ bi sëñ sëñ sëñ xaw xaw su waxe maanaam bu fekkee ne nit ki xëy na am njuróom sorewul noonu waaye xëy na gisuñ gisuñ maanaam jenn lor joo xam ni xëy na indil na ko waaye it loola moom wàññiwu dara ndax dañuy wax Sidna Useynu ak Asan juróom benn weer lañ magante fi ni ñu bari dañuy wax ay seex waaye borom xam-xam ñenn ñi nee nañ ay seex juróom benn weer ndax dañuy wax ne ëmb gën gaa néewi ëmb fi mu nii juróom benn weer lay doon yu manqué juró juróomi maanaam juróom benn fan maanaam gën fi mu ne ëmb naa bañ a mat weesu weesu juróomi weer donte juróom benn juróom-ñeenti weer lañ gën a miin waaye fi mu ne ëmb mën naa mat juróom benn weer képp yem ci wala mu yées tuuti juróom benn fan loolu lislaam loolu la jàngale te boo delloo sax ci aay bi wax wal waalidaatu yurdi'na eh, awlaadahunna hawlayni kaamilayni liman araada an yutimma ridaa'ata muy jigéen ñi nañuy nampal seeni doom ñaari at yu mat sëkk ci koo xam ne bëgg naa matale dirum nampal ba ay yutimma liman araada an yutimma ridaa'ata nga jëlaat beneen aaya bi naan woo say naa linsaana bi walday husnan bi walday husnan hamalat ummuhu karhan woo daxatu karhan wa hamluhu wa fisaaluhu talaasuuna shahran boo jëlee borom xam-xam bi ñu boolee ñaari aaya yooyu xam nga léegi ñaari ñaari at yu mat sëkk muy fukki ñaar fukki weer ak. ñeent ñeent lay mhm. ñu ne loolu ko naam boo ko jëlee nga eh, nga jëlaat fee la aaya bi wax muy salaasuuna shahran mhm. muy fanweeri weer. Mhm. ndax dana diggante. waham lo wa fisaaluhu salaasuna shahran muy ëm ëmb gi ak feral gi fanweer weer la borom xam-xam yi mi ñu boolee ñaari aara yooyu dañ ko dugalante. boo ko naaxisee. waaw dañoo gis ne léegi fanweer weer boo ci génnee. juróom-benn waaw ñaar ñaar fukki weer ak ñeent. juróom-benn ci des ñu ne gën jaa néewi ëmb juróom-benn weer lay doon. moo tax ñu ne Sidna Useynu ak Asan nii du ñuy seex ñu bari dañuy wax ay seex waaye du ñuy seex maanaam Sidna Asan moo mage juróom-benn weer Sidna ndax Useynu li firi ci arab mooy asan mu ndaw maanaam asan guñ tant tasxiir la lu mel nga ne as asan mu seynu mooy asan mu ndaw waaw duñu sa maanaam xëy na bu ñu fekkee ne gis nañ ne euh, indiwu ci kii bu bari loolu mën naa ma euh, du ci lenn ngaañ loolu mën na cee bañ a mën na cee bañ a am solo lool euh, su ko defee bu dee bu dee ci wàllu maanaam buñ duggee ci li nga xam ne mooy mooy xëy na loolu sax mën naa mën naa mën naa mën naa bañ a bokk ci ci. kon daal su ma la mel na ni. Euh, bu euh, lislaam nangu na bu fekkee jafe-jafe am na ci ku jigéen ki. ngir ci wàllu ëmbam. Euh, bii di ñëw ak ba nga xamante ne si moom moo ci topp. mu doon loo xamante ne si lislaam moom it da ci waaj bu baax di ci xool lii nga xamante ne si rek moom mooy liggéeyam diggante moom ak askan wi. ndax bañ ay loraange kon nag lislaam nangu na bu fekkee docteur. Euh, digal na la ko lislaam dana la ko may ndax moom moo saytu sa wér-gu-yaram. waaw waaw dafa baax ngay dellu ci ci xam-xam bu ne. bu suñu xaw si wax fas aloo axala zikri. yëmul ci xam-xamu diina rek. maanaam lu ne ka ko xam moo moo tax maanaam moo tax ñuy wax. maanaam lu ne. am na ko xam maanaam boo àtte bi ci moom ngay dellu. waaw waaye nag boo ni ñu ko waxee rek. Euh, boo ci xamee nag ku xam ne ab xam-xam wér na hmm. tam ragal yàlla boole ci nga xam ne lu ci nekk dana ci sàmmonteeg hmm. diggante travail euh, travail euh, bàmmeelam waaw baax nag loolu tam lu ci ama am solo la ci loolu am na solo jërëjëf oustaz kaddu yi leer na te leer na fi lu bari kon ñëpp war a maase ne planning familial bonut ci kaw nag ni nga koy defee day fekk nga am ay jafe-jafe waaye doonu da nga koy def ngir foom wala mooy wala lenn kon mu mel ni ñi nga xamante ne si rek mooy ONG CRSD bi ci gën a fës nga xam ne ci wàllu communication

88 628 19 05 wala ñu def 33 976 68 99 bu ko defee rek bu dee ay laaj la euh, ngir li jëm ci euh, ONG bi ak it euh, li nga xamante ne si ay contribution lu ci am rek bu soobee yàlla ñu fas yéene koo ànd ak yéen sëñ Xawsu mu mel ni seetlu nañ bu baax a baax li nga xamante ne si ay jafe-jafe la rawatina nag li nga xam moom mooy jëm ci wàllu Covid bi ak li nga xamante ne si yéen moom ngeen wax jëm ci liggéey bi ngeen nekk di ko liggéey liggéey ba mu solo jëm ci soreel njur gi ak euh, jigéen ñi nga xamante ne si dañuy ëmb waaye nag gis nañ ay jafe-jafe yu yaatu yoo xamante ne si benn jigéen presque bëggut a dem hôpital ndax fu nekk ragal na Covid. waaw jërëjëf euh, xanaa di rafetlu laaj yi ni nga koy laajee tem sell lool mu mel ni sax ki la koy laaj tontu yi nga koy tontu moo la gën a xam waaye ngir yaatal tax mu jox la boobu wàll nga def ko ñu ngi la jaajëfal bu baax a baax ak seen technicien bi nga nekkal. Euh, Serigne Moussa Seck moom it ñu ko jaajëfal bu baax ndax indi na ay leeral yoo xamante ne bi ne docteur Dieng bu médecin régional bu fi toogoon mënta wax lu kawe loolu. Mhm. docteur Adama Mbacke it bu bu district bu Mbacke bu fi toogoon mënta wax lu kawe loolu. Mhm. waaye niki noonu it Cheikh Mouhamadul Mountakha fee mu toog doon kilifa diina. Mhm. wax ne moo kilifa yilif ñëpp. wala sëñ Mbaye si Ababacar ca Tiwaawoon toog. li fi Cheikh Abdoul Ahad Mbacke mii wax. moom Serigne Moussa Béto. Mm-hmm. moom Serigne Mor Soxna moom Serigne Mamor Diarra. Mm-hmm. di cheikhu taalim wa tarbiya ci wàcc matière alquranu karim ak diina. Mm-hmm. te yonent bi salaa salaam waxoon ne ahlul quran hum ahlullahi wa xaasatuhu. lii mu fi wax kilifa yooyu may wax it bu fi toogoon mënuñoo wax lu gën a kawe loolu. kon mën naa wax rek jërëjëf. Euh, suñ jëmm ji xew bu ji nga delloowaat nag ñun nga xam ne dañ fee nekkal point vocal bu cadre religieux pour la santé et ci Euh, ñu teewal leen fii kilifa kilifa gi di Serigne Saliou Mbacke mo Cheikh Moustapha Bachir wax naa la ko ni ma la ko waxee cadre bi 2014 euh, la la la sosu mhm. nekk ab cadre mhm. boo xamante ni association la woon mhm. mais bi mu nekkee ONG mi ngi nekk 2019 partout nag ci biir réew mi am nañ fay ndaw ak bitim réew ba ñoo xam ne sax ay làkk yi ñu dégg di wolof moo xam pulaar la wala séeréer am na ñoo xam ne ñoo fa toogal cadre ba waaye diine ji ñu soxla di xam-xam lislaam nekk na ci ñoom ñoo ñëpp nag buñ duggee ci sunu mhm. whatsapp bi mhm. groupe bi ñoom ñëpp nga mhm. gis nga sëñ Abdoulaye wax na aspect yu am solo ci planification am na ku nekk ci yoon wi hmm. bu ko defee ma jël ko rek xool ba xam lan bismillah salaamaaleykum waaw kay euh, bu ko defee rek xam naa dina dina ñëw ci léegi ci kanam ajo bismillah xam nga sëriñ Abdoulaye Mbacke ñëw na wax na la tontu yu am solo ci mbirum soril am maanaam soril gi njur nag liñ njëkk a jublu rek mooy defar ndax nañ mhm. xool baatu cadre bi li ko tax a jóg muy cadre religieux pour développement mhm. kon ay dignité religieux ñoo ci nekk mhm. boo xamante leen tax a jóg mooy wér gu yaramu askan wi ak seen yokkute waaye waaye may wax ne képp ku bëgg a digal wala ngay def leen na nga jëkk xool lu turu cadre bi ak ñen ñoo ci nekk ba noppi muy seen jubluwaay beneen bi ci topp mooy euh, nañ xam ne ñun ay nit lañ. Mhm. te nit nag wolof Njaay dafa waxoon ne nit. Mhm. nit ay garabam. Mhm. am keneen ku ne déedéet nit nite mooy garabam. nite mooy garabam. am keneen ku ne déedéet nit niite mooy garabam niite <laughs> niite <laughs> mooy garabam kon mu mel ni ñett yëpp. lu am solo la. nit nit mën naa nekk garabam. ndax sa moromu nit ngay waxal. doo wax ak mala yi. waaye nit ak nite. mooy nit dafa war a am xel. te loolu bu ñu demee ci alquran loolu la jëfandikoo. inna fi zalika la ayatin li qawmin yatafakkaruun. inna fi zalika la ayatin li qawmin yaqiluun. inna fi zalika nag joojee la ayatin jooja. mooy yii ngay dégg rek. waaye la ayatin li qawmin yaqiluun. aywa xam naa am na ku nekk ci yoon yi mu daal koy jëli rek. acca asalaamaaleykum. allo. salaamaaleykum wa rahmatulah. allo. allo waa salaamaaleykum. allo. mbokk maa ngi lay nuyu dina la siyaar bu ah. baax. waaw ñu ngi delloo ziar. jërëjëf ziar nañ la bër. waaw maa ngi leen di nuyu lu bare bare. jërëjëf ku baax kooku. waaw kii de Baye Touré la Touba Gare bu mag. Euh, Baye Touré aywa bisimilah. waaw waaw di rafetlu di rafetlu émission bi sànq ba léegi. Mm-hmm. waaw di yéen a ngi wax ci mbir mu am solo muy planning familial. Mm-hmm, mm-hmm. waaw di wax ne loolu ustaas boobu indi na ci leeral yoo am solo yoo xamante ni. Mm-hmm. Ah, euh, jariñoo nañ ko. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. dafa doon acte bu rafet boo xamante ni. bépp chef de famille. parent de famille. nga xamante ni amoo wagar ga ma sëkk bëkk ci contrôle bi ak yar gi ak taxaw gi ndax doom dafa am ak ci waajur. boo ko amee lépp luy responsabilité da cee war a taxaw. te amaana bu fekkante ne njur mi jege na lool waggar ga ak toppatoo ga ak saytu ga ñu jàng war a ku nekk la mu war a xam da ko war a xam mm-hmm. waaw contrôleur boobu bu fekkee ne am na lu ci def rek mm-hmm. daanaka nga contrôler di jéem a utiliser planning familial bi damay gis ne da ciy gën mm-hmm. waaye ci biir loolu nag mbir boo amee comme que dañoo nekk mondialisation jamono bi dañoo nekk ci époque bu bees loo am rek dana am ñoo xam ne dinañ ci raaxaloo mm-hmm. ndax loolu permettre luñ ko képp koo xamante ni du couple war koo utiliser mm-hmm. képp ku ko doon def da ngay ànd ak sa borom kër mm-hmm. couple bi ànd ñoom médecins yi ñoom ñoom xam ne lañ lañ lay laaj muy sa bulletin de mariage yooyu yëpp bu ko defee nga wane ko ba mu wër ne kii nii moo jëkkëram c'est sûr xam nga mu mën koo def yaa ngi dégg waaw waaw léegi loolu ci côté médecin yi la mais maanaam ci côté diine ji moom gis naa ko rafetlu naa ko lool am na solo lool lool lool parce mm-hmm. doom dafa am ak da nga ko war a yor mais xale yoo xam ne dañuy taxawaalu ci mbedd yi duñu am contrôle bi war xam nga. boo mm-hmm. génn gis leen ci mbedd yi kon loolu daanaka. Mm-hmm. Euh, amul amul njariñ daal sama gàttal. ci sama xalaat ba gàtt. waaw waaw maa ngi tuub nag eh, di jégalu ci kàddu yi di rafetlu émission bi jërë ngeen jëf. <laughs> Eh, jërëjëf am na solo eh, sëñ Xawsu. waaw jërëjëf ñu ngi si rafetlu mbokk moom nga xam ne mi ngi wootee Touba Mbacké gaar bu ndaw. Mhm. loolu li muy wone rek mooy wone ne gis nga lii ñuy yëngatu. Mhm. wax dëgg yàlla kilifa yëpp soxla nañ ko waaye dëkk yëpp soxla nañ ko. kon nag ma jàpp ne dafay nekk ci rolu bépp doomu aadama. Mhm. rawatina ab jullit bu am xam-xam. Mhm. lu mu néew néew néew. Mhm. la nga am nga bokk ko sa société. alal neex na trop. waaye xam-xam bi moo ëpp solo ndax yonent bi sallallahu alayhi mi wax ci benn hadiis képp koo xam ne yàlla jox na ko xam-xam mu nëbb ko doomu aadama bu ëllëgee yawmal qiyaamati yàlla dana ko takk ay ngalaabu weñ tàbbal ko sawara est-ce ski est-ce que yàlla na ci yàlla musal ah. kon mu mel ni nag li ëpp solo mooy li ñuy def nii. Mhm. muy sensibilisation yeete ci wàllu xam-xam. Mhm. te loolu la Sëñ Muntaxa soxla. Mhm. dafa jël ay milliards di ko tabaxee ab université boo xam ne dafay fekkoon bàyyam Sëñ Blaat ko. maamam Sëñ Blaat Sëñ Tuubaa bindoon ko. mu ñëw ko yàlla mottali ci moom mu àggale. ba ñëpp mën koo jëriñoo. kon ñu koy ziar bu baax a baax tamit di profité di ziare waale Cheikh Mouhamadul Bachir. mi nga xamante ne bi mooy porte parole yoonu murit. moom it yàlla na ko yàlla gën a dëgëral kattanal ko. waaye di profité di sering Sidi Mbacke tey nga xam ne mooy màggalu si Abdou Lahad Mbacke di ci hmm. ziar bu baax a baax muy jàmbaaru l'islam waaye di jàmbaaru tariqatul muridiya hmm, hmm. ko ziar bu baax a baax ak mboolem mm, kilifa yëpp waaye di wax rek ne eh, gis nga planning maanaam mbir la moo xamante bi ne dafa noppale bu fekkente bi ne nit ki xam na koy lan lañ jublu ci planning mooy dañuy bëgg a jublu tabax ab société bu bah, boo xam bu ëllëgee dana mën a tabax am réew mu yaa ma dégg. Mhm. ndax benn waaye dafa waxoon ne won ma sa xale yi réew. ma wax mhm. la sa réew nan lay mel meli ëllëg. Mhm. fan fan nga war a mën a àgg ji. kon nag yaakaar naa ne qualité boobu lañ soxla ci doomu aadama te moom la xadis bi ñëw di ko andi. ñun nag bi ñu jàngee xadis bi ñu bëree bëri nag. ci ñuy dingat. mooy xadis bi dañ koy jàng rek duñ xóotal. mais xadis dafa am ay chara chara yi lañu war a topp. chara mooy leeral hadis gis nga charakat yi benn hadis day ñëw rek doon benn phrase bu gàtt mhm. mais charakat yi dañuy ñëw chara mu nekk ay page yi page yi page yi page mhm. lan lañ ci jublu du jot de mhm. waaye ngir bëgg a leeral te yonent bi salaa salaam na nee na képp ku wax ci man loo xam ne waxuma ko te tuuboo ko na nga préparé sa kër safara ëllëg yawmal qiyaamati moo tax léegi-léegi ku toog naan yonent bi salaa salaam nee na nañuy takk nañuy juri doom nañuy nangam te léeruloo yeneen yi déedéet Mhm. du noonu. maanaam daal leeral gi da ngaa war a leeral euh, euh, aspect positif ak aspect négatif. négatif bi te li sëñ laa doon wax rek fasalu ahla zikri in kuntum laa ta'lamuun gis nga mbirum diina. du mhm. ñëpp ci war a wax. Mhm. boo ci amee loo ci namm. laajal ñi xam. ndax yàlla bi mu nee iqra. ñëpp war a jàng ji. waaye ñëpp mënuñoo jàng ji. ñëpp mënuñoo jàng ji diina. ñii dañuy jàng médecine. ñiy jàng chariatul islam. Mm-hmm. ñiy jàng journalisme. Mm-hmm. ñiy jàng ñeneen loolu la ñuy tabaxee am réew. Mm-hmm. waaye du am réew ñu ne dem leen ci daara ji rek ñëpp demonoo jàng ji alquran. déedéet. te loolu gis nañu sëriñ Bamba defoon na ko bi mu ñëwee di jàngale alquran ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam feeñu ko lu mu ko wax. rabbi ashaabaka bil himma wala turabbihim bi darsi faqat. ba mu ne ko ba mu ko waxee waa daara ñëpp ñu doon jàng alxuraan daw dem seen yoon. Mhm. waaye tey gis nañ ne ximma jooju mooy lan mooy pas-pas. Mhm. pas-pas yooyu mooy lan mooy lu ñu war a xam mhm. a sàmmoo ak yàlla nañ ko sàmm. moo andi tey doole yoonu murit. ba président de la euh, bi ma doon wax nii naan force track bi ma doon wax. Touba laa ko gisee ndax université bi. bi ma fi ñëwee ñu teg première pierre bi ak mooy force track. kon nag mooy li nga xam ne moo am ci lii ñuy doxal. maanaam ñun liñ ci jublu mooy fexe ba ñaari way dencante yi. Mhm. ñaari way dencante yi. ñun mhm. moo ñu ñor ci aspect l'islam mhm. ndax ñun muy ministère de la santé ak ak réew mu mën a doon. mënoo am doole ba saytarañu. ba tax ñun cadre lislaam ñu génn ko. ñun cadre bi ñu mën a jàppalee réew mi mën ko jàppalee euh, gouvernement bu Sénégal. mooy ci wàllu lislaam l'islam lañuy ñuy tàmbale fa la suñu mawqif daal mooy mawqif al islam. fii xayatil mujtamain maanaam taxawaayu lislaam ci su dund société bi li ci lislaam tàmbale fa la ñuy tàmbale fam ceem fa la ñuy yem waaye duñu tarxis alali àddina jëriñu ko mhm. te it loolu sunu maam Serigne Touba waxoon na ko xobul xotaam yi moom mhm. duñu yóbbu mukk ci maanaam bunt buur yi mhm. déedéet pañotu mhm. àddina bëgg ko du ñu tax ñu dem foofu mhm. kon li ñuy taxal jóg mooy ñun de ay julli lañ ci seede nañ ne bu ëllëgee dana lal ak sunu ndeyjoor jàkkaarloog sunu borom subhanahu wa taala lépp lu ñu waxoon lépp lu ñu jëfoon laata ñuy wax suñuy cër nañ ko seedewaat ak suñuy euh, xalaat kon nag moo tax ñun fi ñu ñëw mooy jàngal nit ñi lan la lislaam wax ci planning familial du ab xaalis du lenn ndax émission yi ñuy def mënu ñoo jox xaalis bu ñu mën a fay ndax dunduk doomu aadama ak temps bi muy am dafa cher trop amul lu ko mën a jënd wala tastaru bi ayatillahi thaman qalila mm-hmm. yàlla wax na ko mm-hmm. amul lenn loo xam ne mën nañu ko jox ci alal ba mën a remplacer loolu kon suñ ñëwee di def ay temps de antenne yéen ngeen ñu bàyyi ñu nit ñi di mm-hmm. ñu koy def ngir yàlla rek nga xam ne ñun ñoo suñu rajo di fay di ko def ngir yàlla kese di di dox ay kilomètres di ko def jël suñu oso di lakk essence loola kon dañuy jàppale sunum réew loola na ñuy def nag na ko nit ñi xamee noonu mm. mooy te daawoo ibadallah mm. fa inna allah lam daa illa wa alhu daw la ba ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax yéen jaamu yàlla yi dem leen ngeen faju yàlla jàngoro jum andi rek am na saafara loolu donc lañ ci mën a déggee mooy bul bàyyi ba tëdd na bërëb ba nga xam ne ne lacc-lacc nga soog a jóg mm-hmm. non al wiqaayatu xayru min al ilaaj fagaru moo gën faju mhm. te benn arab dafa wax ne dirhamu wiqaayatin xayru min xintaarin ilaaj mhm. maanaam nga jël benn dërëm di ko fajoo di ko ah, ko fagaroo mhm. moo gën nga jël ay milliards di ko fajoo loolu kon nag moo tax ñu jóg ne nañ leen sensibiliser maanaam nañ leen sensibiliser ci planning familial nan lañ koy defee mooy tax ñu ànd ak ay ustaas yi borom yi xam-xam uh-huh. ñoo xam ne ñu maanu lañ bu ñu leen tudd ku mel ne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mii ku mel ne ustaas Ndiaye ku mel ne Serigne Lamine Ndiaye ku mel ne Serigne Mamor ku mel ne Serigne Serigne Assane ku mel ne Serigne docteur Khadim moom Serigne Serigne Guédé Guédé ak ku mel ne Serigne Cheikhouna Mbacké Serigne Abdoul Wadoud ku mel ne Serigne Abdourahmane euh, Serigne euh, Serigne Abdou Serigne Mbacké ak ñeneen ñu mel ni ki ñoom di ay boromi xam-xam Serigne Massamba Bousso mhm. ca ca ca ca Mbacké Bawal mhm. ak boromi xam-xam yooyu ak Serigne Khadim Bousso ak ñeneen ak ñeneen mhm. ñuy ànd ak ñoom nag di liggéey ak Serigne Sam Mbacké ñuy ànd ak ñoom di liggéey ci yëf yi waaw kay euh, ci 33 976 68 99 am na ku nekk ci yoon yi ma jëli 68 99 33 976 68 99 am na solo euh, ñu leen di fàttali rek yéen a ngi ci euh, yokk sa njariñ tey jii rek ñu ànd ko ak euh, ONG CRSD ànd ko ak ministère de la santé ci liggéey bu am solo ku ci mel ni sëñ Xawsu bu soo fekk teewal leen fii ak ki nga xamante ni si rek mooy sëñ Abdoulahad Mbacke ak Serigne Moussa sekk Serigne Moussa xam naa damay daal di dellusiwaat ci yow rek ci li nga xamante ni si mooy jigéen ñu wérut ñi. yéen ñi nga xam ne yéen a féete ci wàllu sante ana lan ngeen leen di wax ndax xam nga toog ci kër gi rek dana doon dana indi ay jafe-jafe euh, bu fekkee ne yaa ngi toll foo xamante ne si visit jot na ci yow nga war a dem hôpital doo dem ndax ragal lii nga xamante ne si mooy ki ndax jar na ragal ba toog ci kër gi di am ay loraange. ah jërëjëf sëriñ bi mhm. comme sëñ si wax na ko léegi loolu jarul ragal. Mhm. parce que hôpital yi léegi def nañ si matukaay yoo xamante ne. Mhm. Le président vivre avec le virus. Mhm. vivre avec le virus nous ku nekk na nga fexe. Mhm. ba mhm. ba ko faire, ñu liggéey développer le parce que si nous avons fait rek di xaar léegi nit ñi dem ñu liggéey nous dëkk te loolu nit ñi ñu corona <laughs> est-ce waaw loolu nag nit ñi buñ demee ba di ko wax jamono bi metti woon na léegi nag comme lii moo fi sës gis nga dëkk yi mu amoon ak yépp ñi ngi tijjiwaat seen i frontières ak nit ñi di commencé waat seen liggéey mm-hmm. loolu moom dañ dañ koy rafetlu mm-hmm. de maa amaan nag dem kër docteur bi mm-hmm. loolu moom kenn waru cee jóge benn yoon parce que corona bi moom bañ nañ ko ba du hôpital bu nekk lañ koy faje sax dañ mm-hmm. leen a beral fu ñu leen di faje ndax wàllante bu gaaw mm-hmm. yeneen hôpitaux yi si des nag teg nañ fa ay matukaay bala faa nit a dugg daa raxasu mm-hmm. wala ñu diwal la alcogel des ñu jëlal la sa température soo demee di rang da ngay respecter distanciation sociale bi un mètre yi dina toog diggante nit ak morom ba ngeen toog ba ki nga demee soxla ko nga takk sa masque tamit soo demee ki ngay jàkkaarlool dina takk masque am takk commi xool combinaison xool lu mu lay faje ba doo ko wàll jàngoro bi moom tamit bu ko amoon du la ko wàll mm-hmm. loolu nag loolu la ñëpp ñëpp war a def mm-hmm. fooy dem booy génn sa kër rek da ngaa war a takk sa masque mm-hmm. comme niñ ko ni ko gouvernement bi digle ministère de la santé digle planification kooku moo boo xamante ne dafa diis ci baat ci dikk nit ñi mais nag mooy moo boo xamante ne àddina bi yëpp noonu lañ koy tuddee mhm. mais dafa am ay concept yu mu ëmb mhm. parce nit ñaa ngi sëy mhm. ñii bëgg am doom te mënuñu koo am doom loolu foofu la ñuy fajoo ñii ngi def dañuy ëmb ñii am na ñoo xam ne ñoom duñu sax mën a na ñoo xamante ne dañuy ëmb mais du mat mukk ëmb ba du mat ñu avorté mbaa yi demee noonu ñooñu foofu la ñuy fajoo ñi nga xamante ne seen euh, li ñuy wax seen doom yi dafa jigeyoo trop trop mm-hmm. wala ñoo xamante ne mënuñoo am doom ñoo ñëpp foofu la ñuy fajoo mm-hmm. ñi nga xamante ne tamit dañu am ay feebaru sëy mm-hmm. foofu la ñuy fajoo ndax ku ne sëy am na feebar yu muy àndal naturellement ñoo xamante ne ñi nekk ci buumu sëy mooy ñu defuñu dara dafa am feebaru sëy yoo xamante ne mën na faa gaaw a am loolu foofu la ñuy fajoo comme li sëñ bi téléphoné woon sànq wax nag ñooñu dañu bëgg sax gis nga sage-femme yi boo leen laajoon lu ñu gën a bëgg ñu ne la jigéen buy ñëw consultation mu ànd ak borom këram mm-hmm. waaw loolu dafa am solo ci ci organiser kër gi bi nga xamante ne boo demee loolu boo ko defoon ba sage-femme bi waxtaan yéen ñaar ba pare ba ngeen dem mm-hmm. lu mu amati ne def leen rajo wala échographie mm-hmm. su noonu loolu rek nga am di nga ko joxe ñu dem def examen yooyu waaw yooyu tamit daf see am solo nag lii eh, moo tax nit ñi waruñu eh, toog ne du ñu dem hôpital. ak mhm. feebar bu leen mën a mën a dal. Mhm. lu mu gën a teel. ñu mhm. gën laa mën a teel a faj. te loolu nag moom la nit ñi bëgg nag. léegi nag corona bi moo tax nit ñi bari ndax wàllante bi gaaw na. ku ragal koo am dem tëdd ak moom comme ni ma waxee sànq ba mu indi la loofe kenn mënatulaa faj. parce que am na yenn gañe yoo xamante ne bu la ko corona bi fajee moom kenn mënatula koo faj. am na yenn jàngoro yi boo ko xamee mu fekk ko si yow daf lay yàpp. kan moo ciy toog benn at bu nekk wala ñaari at yu nekk nga dem docteur ne ko damaa bëgg a def bilan. pour nga xoolal ma sama yaram. <laughs> léegi xamoo yow ban doomu jàngoro moo nekk ci sa yaram. xamoo hmm. ban feebar nga am xamoo ndax am nga diabète xamoo ndax am nga tension. Hmm. xamoo ndax am nga même tuberculose feebaru sëqat bi am nga xamoo ndax am nga ko. Hmm. te ñun fii. ñi ngi dund ak siburu daanaka at mu nekk we at yëpp dañuy siburu léegi bu njëkk ba day nañ wax nawet rek la mais léegi noor ak nawet mu ngi am ay kaawu siburu mm-hmm. su la siburu dalee nga bañ koo faj doomu jàngoro corona ñëw dal si yow encore da ngay néew doole ba nga xamante ne garab yi ñu lay jox dootoo ko àttan bu boobaa ñu ne ah, ñibbi na génn na àddina bàyyi demee noonu fekk na boo teeloon a jóg mm-hmm. di nga am quatre-vingt-quinze pour cent bu wér mm-hmm. donc nit ñi dañ leen di ñaax ñu jël seeni matukaay. Mm-hmm. nañu bañ def seen bopp ne bu ma demee hôpital dama fay yóbbu jàngoro bi. Mm-hmm. nañu def seen bopp ne man bu may dem hôpital duma ma fa yóbbu jàngoro bi. Mm-hmm. su ma ko amee du ko fa wàll kenn. mesure yooyu ngay def ba boo ko amee doo ko wàll kenn. loolooy tax bu ko fa amee tamit kenn du la ko wàll yow. waaw parce que lii mesure distance mesure yi ñuy wax mesure barrière yi. vraiment loolu la ñuy ñaan ñëpp respecté ko. xale bu ndaw bu muy génn këram sax. su weesoo ñetti at doonaka mën naa takk masque am rawatina ba ci mag mu gën a mag ñëpp mm-hmm. war nañoo takk ay masque mm-hmm. dem ci hôpital yi dem faju mm-hmm. ñëpp war nañoo fexe di raxas seen loxo yi ak saabu ba mu set soo nekkul sa kër boo amee alcogel nga laal ko ci nga moytu yóbbu say loxo ci say bët ak say bakkan ak yu deme noonu soo moytoo nuyoo ba pare ndax te joomu jàngoro yi ci bunt yooyu rek lay jaare ak matériel yi nekk kër ga mbaa ci bureau yi yooyu nga xamante ne ay nit ñu bari dinañ ko laal. Hmm. parce que doomu jàngoro bu nekk sa gémmiñ nga tisoole ko fii. Hmm. fii mu ne mënoon naa tas fii yëpp seen saal bi. Hmm. bu kenn ñëwee laal ko dina ko jël keneen ñëw laal ko jël looloo tax yenn structure yi bu amee bu amee ngay gis yenn banque yi xëy na ko fa ko fa yóbbu mhm. dafa laal kayit yi kiy jël kayit bi laalante ko rek xëy na mën naa jaare foofu ñiy jaay marché xaalis bi ñuy laal moo tax te gis nga li ñu doon waxoon ne commerçant yi ni mu baree si ñoom mhm. ndax xëy na loolu lépp xaalis bi dina ci jouer ndax laal laala yooyu cela suppose que ñoo mhm. ñooñu ni ñu war a raxasoo saabu ak ni ñu laxase alcosel bi ba léegi yooyu dafay des te loolu fi mu ne ay réflexe yoo xamante ne nit ñi dañ ko war di def fu ñu toll. Mhm. parce que jàngoro bi moom dafa indi daanaka nit ñaa ngi wax li ñu diine doon tere yëpp jàngoro bi ñëw na tere ñu ko boo amatoo ngénte dajale fa nit dëj noonu. te jàngoro bi tamit raxasu bi li mu ñuy fànqal ay feebar yu bari yoo xamante ne warul woon am ay Sénégal ay biiru tañ ay ay ay yooyu loolu lépp si nuyoo ci lay jóge nuyoo ngay nuyoo sa loxo di laal sa kanam ak di laal di lekk te doo raxasoog yu demee noonu mm-hmm. mooy indiwaat jàngoro yooyu yëpp mm-hmm. tuberculose gis ngeen bari na fi trop boori zone Diourbel bii mm-hmm. te ni ni ni kii boobu di wàllantee daanaka ci sëqat bi ci sool yi loolu di génn ci sëqat yeeg yooyu tuberculose noonu lay wàllantee léegi kon xeex bi ñuy xeex corona bi suñ ko continué di xeex léegi tuberculose bi sax jeex fi ci mm. kaw ci kaw nag ñi nga xam ne yor ñi nga yor doomu jàngoro bi yàgg xam ne ñi ngi ko yor di dem dispensaire di jëli seen garab régulièrement mm. nañu continué dem mm-hmm. ku soxla hôpital mm-hmm. li ñu lay assuré mooy da nga war a takk sa masque booy dem mm-hmm. soo duggee ca buntu hôpital ba di nga raxasu mbaa ñu defal la alcool soo demee di rang na nga topp koo topp wala ko topp si yow sa distance un mètre bi nangam rakkam respecté leen ko. Mhm. soo demee ka lay faj di nga ko gis mu sol combinaison ak ay gaam ak ay maskam mhm. teeru la donc jàngoro bi. supposé nañu ne diggante boobu li ngeen seqe noonu amul fenn fu mu jaar ba génn ba mën a génn ci nit ki pour dem ci keneen te bu boobaa bu ko ñëpp defoon 15 jours léegi nga gis jàngoro bi dootu dina fi jo dina fi dina fi jóge su ko ñëpp defee ci réew mi jàngoro bi jeex fi parce que noonu rek la fi mën a jeexee kenn mhm. wàllantewu ko parce que mi ngi am di wàllante mu am jeunes yoo xam ne bu leen dalee duñ ko xam mhm. ñu continuer dox seen i yitteeg yooyu demee noonu te protéger wuñu mhm. mën nañ ko wàll ay nit comme ni ma waxoon sànq ñu mhm. ko wàllee ay mag ak ay xale loolu baaxul si ñoom loolu daal sëñ bi euh, hôpital dañ ko tabax spécialement pour nit boo fa amee soxla rek dangaa war a jóg dem corona bi jotewul daara ak foofu gis nga tuubaa fii ñi ngi faje ñaari bërëb ñett yéegi la ñuy faje koro la ñuy faje ñi yor jàngoro bi ña mm-hmm. ma nga dekk Touba mm-hmm. te bërëb yooyu bokkut ak am na fu bokk ak fi ñuy faje nit ñi mm-hmm. mais dañoo sore ñu am ay mesures barrières yoo xamante ne kenn du jóge fii di dem foofu lu la indi structure ba la indi nga dem foofu lu foofu ñu mel comme yooyu rek ñoo fay faj te dinañu sol masque ñoom ñëpp dinañ leen vérifier vraiment ñi ngi éviter contamination bu baax a baax moo tax émission bi ñuy def nii mu am solo parce que nit moom kenn mënu ko forcer si dara. mais dangay wax mu dugg ci boppam mu réfléchir. Mhm. ah kii lan laa ciy tànn. Mhm. su mënta décider mu dem ci borom xam-xam yi mu laaj leen borom mhm. xam-xamu diine yaa ngi ci borom xam-xamu docteur yaa ak yeneen yaa ngi tax ñu bëgg a laajte moo tax ñu bëgg de diine ji moom. ak ah, xawma yooyu. jànguma rek loolu warul tax génnewu la ci. parce que heure boo jàngul denn ngaa koo xamante ne jàng nga. te waroo nit warul rëy goo xamante ne xamul dara te rus na kaa laajte loolu moom. diine dàq na loolu mm-hmm. donc loo xamul mm-hmm. nga dem laajte ba mu leer na la lii lañ la wax mm-hmm. moo dal sa xel nga dugg si te li ñuy wax nag nit ku am raison la ñuy wax raison xam nga mooy raison dugg mu xalaat ah man ban taxawaay laa war a am ci lii nit ñi di wax dem gëstu ci ak keneen laajte ci ba waxtaan ba ñu convaincre la nga def loo xamante ne lii doy na la mais du loo dégg rek ne ah tubaab bee ko fi indi ñii dañoo bëgg lii dañoo bëgg a dañoo bëgg a yemate suñu njur mi suñu doom yi la ñu bëgg a def lii tubaab yi lu ñu bëggoon def mm. suñu garab yi ñu naan suñu téléphone yi suñu oto yi lépp ñoom ñoo koy defar mm. lu ñu soxla woon fu ñu bëgg a jaare mën nañoo jaar ci matériel yooyu yépp pour mm-hmm. agsi ci ñun mm-hmm. mais ñun tamit bu ñu agsee ci ñun mm-hmm. te ñu nekk ay jullit gëm yàlla te yàlla tudd ko tamit du am ndax fi sëñ tuubaa jaara nag noonu tubaab yi mm. loolu war naa yee taalibe bu nekk jullit bu nekk waaw sëñ bi am na solo euh, jërëjëf ci 33 976 68 99 33 976 68 99 ci seen émission euh, yokk sa njëriñ am na solo euh, ñu ànd ci ak ONG CRSD mu doon lu am solo loo xamante ne si rek boobu ba léegi ñu ngi koy faram-fàccee ci ay sensibilisation yoo xam ne moom lañ dëkkee xam naa naa dellusiwaat ci sëñ xaw su ndax ginnaaw ubbi nañ li nga xamante si rek mooy état d'urgence bi nga xamante moo amoon ñu teggi ko ci wàllu oto yi wàllu transport ak lépp la ca topp nga xam ne ni nit ñi danañ daje ci marché gi ja ci topp euh, loolu ana lan ngeen di wax askan wi ci euh, jafe-jafe yooyu nga xam nar na leen koo jural jërëjëf dafa mel ni laaj bi sax dama ko doon bëgg anticiper ak yow far nga far ma laaj muy laaj bu am solo ndax laaj bi lima ma koy njëkk a def rek muy remarque bi ma njëkk muy masjid masalikul jinaan bi nga xam ne moo nekk mbusoo bi fa sëriñ tubaa ganee àddina sëriñ bàkk Euh, joxe fa ndigal. Mm-hmm. def ko muy juma ak jàkka. mu mm-hmm. dee jàkk ba juma ñu fay julli. Mm-hmm. te suñuy mag di fa jiite léegi. di ñaanal sunu mag Cheikh Bachir Mouhamadul Bachir ma fa doon jiite te yàlla yóbbu ko àllaaxira mu yërëm ko. mu ko rakkam Serigne Bousso bi ak gis nga matuwaay yooyu. ñun bi mu amee rek. ñun ñoo commissariat bi ñoo dëkk. commissariat de police. di ziar bu baax commissaire Diédiou ak les préfets. ñuy baax nag ak docteur Mbacke ñun ñëpp ñoo dëkk. sensibilisation bi ñun ñëpp ñoo ci àndandoo.

sa wér na sa ñàkk sa dégg lislaam moo des. Mhm. ndax sëñ Moussa wax na ko léegi. Mhm. naan dañoo war a faju ji. ndax du mhm. feebar bii rek bi moo fi nekk. loolu yéen bi sallallahu alayhi wasallam ko jox bi mu ne te daawoo ibadallah fa inna allaha lam yara daan illa wa lahu dawaan tey mën nga koo firé ne. dee leen dem ci hôpitaux yi. dee leen dem ci hôpitaux yi di faju ndax am na fi ay xeeti dawaa yeneen yeneen xeeti jàngoro yu ñëw yu bokkut ak bii rek. Uh-huh. mais bu ci nekk dem leen ci hôpital yi ngeen faju uh-huh. ndax yàlla am jàngoro ju mu andi rek utal na ko saafara. Uh-huh. te fan ngay fajoo mooy fi nga xam ne fa la ñuy fajaatee. du ci mbedd mi la ñuy fajaatee du ci jàkka yi. jàkka yi am na lu ñu fay fajaate waaye fajaate beneen bi nga xam ne ci yaram la. jàkka ji moom fajaatam xel. ak yóbbu la ci ruu esprit. yóbbu la ci yàlla lañ fay fajee. waaye bu dee yaram wu funox wala wu yàqu. wala boo xam ne mën dafa loof. ci doc kër kër docteur lañ koy mën a fajee kooku beneen bi ci topp yàlla di wax ne xulu innal mawta lazi tafirruuna minhu fa innahu mulaaqikum ñi ñiy ragal dem hôpital ngir ne Covid bi mais Covid bi. xam nga lu tax ñu ragal. Covid bi sibbiru jiitu woon na fi. choléra jiitu woon na fi. mais gars xam nga lan ragal. ragaluñ dara ci loolu de lu dul mujjantelu Covid bi ndax gis nañ ne nee day reye. waaw ma ne. doomu aadama moo mën raw ak moo mën daw dee. amul amul fenn yàlla nee na ci alquran qul innal mawta lazi tafirruuna minhu fa innahu mulaaqikum dee gi ngeen di daw daf leen di daggu. ay na maa takkuun yudrikul mawt fu ngeen mën a nekk day fekk leen fa. Mhm. Mhm. walaw kuntum fii burujin mushayyada mhm. loolu ci ma ci maanaam mooy lan boo nekkoon kër guñ beleen rek wala nga takk ndomba yi gën a dëgër ci maam yi ñu takkal la ko bu dee ñëwee da nga dee <laughs> ki dem ci xare ñu takkal ko ay galang dee wut mu dikk bu mu ko gërëmee ndomba yi na ko sant yàlla te xam ne waxtu ba daa agsi wut waaye billaay bés bi agsi benn waaye daana ko wax ci waaraatekat yi daan waaraate ci buntu jumaa ja naan sëñ defar naa Euh, genn ñaan goo xamante ne bi ne ku ko ñaan doo dee ci at mi hmm. ba mu yàgg mu ne waaye nag boo demee bay bëgg dee da nga koy fàtte <laughs> xam nga loolu loolu mooy li mooy li xorom maanaam nga xam ne ñoom seen li ñuy wax duñu seetlu yàlla nii daal ñëwaat dëgg la nga xam ne kon mbir moomu mbirum suñu borom subhaanahu wa taala hmm. kon wàllu hmm. maanaam euh, maanaam ndigali yi alxuraan daf ne atiullah wa atiu rasulahu ulul amri minkum na topp yàlla mooy di ko jaamu di def ndigal yi mu leen digal waaye day bàyyi tere yi. Hmm. war rasula yonente bi salaa sallam sunna gi mu jàngale ashariatul islam ñu koy véyé véhiculer di ko véyéle message yi. Hmm. waaye wa ulul amri minkum mooy lenn lu bu ngeen di def dara na ngeen déglu seen i kilifa. Hmm. te dëkk boo dem am na kilifay aada am na ay kilifay diina. déglul say kilifay aada. ñu méngale ko ñun nag alhamdulilah suñu kilifay aada ak suñu kilifay diina dañoo méngoo. kilifay aada yi duñ def dara. te amuñu ndigalu kilifay diine yi ba waxtaan. Mhm. kilifay diine yi luñ bëgg a jàllale waxtaan ak ñoom moo tax ñun ñu nekk ci loola. Mhm. moo tax ma ne bu fekkee dañoo wax ne nañuy takk takk ay masque masque yaa ngi nii comme yi ngeen gis ñu andi ko. Mhm. ñu nee nañu laal zel yi. Mhm. te dañoo wax ne zel bi. Mhm. maanaam diwa ko quatre vingt dix neuf. quatre vingt mhm. pour cent virgule neuf. dana ko mën a fegal nit ki ci xeeti ay microbe. microbe na nga koy jëfandikoo. na ngay raxasu ba set comme ni koy euh, euh, kii di waxan te inna allaha yuhibbu tawaabiina waaye yuhibbu al mutatahhirin. yàlla kan la sopp. kuy tuub ci ay bakkaar kooku mbirum biir la. waaye ci biti ku laab. laab. te laab nan nga ko mën a amee bil maa in nazif almunazaf hmm. moo xam da ngay jëfandikoo savon euh, savon wala eau de lu mën a doon. Hmm. kon ndekete set yàllaa ko njëkk a santaane. Hmm. te set nag moom boo ko dee def doo ami feebar waaye yow ñàkk a set ci lay maladie bi jëlee. te loolu andi wane na li ñuy def. moo tax kon masir mesure masir mesure barrière yi ñu jël andi ko ci lieu de culte yi ak jàkkee ak jumaa yi. damaa wax ne am na koo xam ne dañ na ko solal sa masque. mu ne man masque bu ma ko solee. te xam nga kañ ko wax mooy gannaaw bi nga xam ne yolomal nañ. commandant bàyyi di jàppee bàyyi di dóoree. Mhm. biñ ne biñ ne ko solal sa masque mu ne man masque su ma ko solee daf may fatt. Mhm. ma ne ko fal ñu ne ko fan la lay ci biir jàkka ji waaye bu génnee ci marché ba war a mu dem feneen da koy sol. Mhm. ndax bu ko solul alkaati yi fatt ko. <laughs> alkaati yi fatt ko te par force da koy sol. moo tax diggante bi ngay nekk ci biir jàkka ji. waaye comme kilifa gi ko digal moom du la dóor. du la wax dara. kilifa diina gi la. manque de respect boobu wala ñàkk solo gi ñàkk gi nga koo ñàkk wekk moo tax ngay jëfandikoo loola. Hmm. waaye bu fekkoon alkaati yaa ngi taxaw ci buntu jàkka yi. Hmm. naan ku ko solul doo dugg ci biir jàkka yi par force danga ko sol. te sol googu du alkaati bi lay lay aar. Hmm. waaye alkaati bi père de famille am na ay jabar am na lépp moom mi ngi koy sol yow sol ko. ndax aar sa bopp aar sa njaboot aar waa réew mi la. loolu mooy li am solo. kon nag ñun mesures yi loolu lañ ci jublu mooy tax dañoo wax ne. ñun bañ nañ ko ba dañuy jënd ay paquet. ci man bi muy soog a am. Hmm. man maa rafetlu laaj docteur Moussa Ndour pharmacien. Hmm. mu jox ñu ay zel yu bëree bëri ay hmm. carton zel. ak ay carton madaar mm-hmm. ak ay saabu mm-hmm. madame Mbacke docteur mm-hmm. jox ñu jox ma ay paan ak ay satala am yeneen booyum banaa yoo xamante ne defkatu yu baax andi fa ay raxasukaay ak lépp ñu séddale ko ci jàkka yi ak jumaa yi ak daara yi sëñ laat mii di wax daaraam am na ci lu bare bare bari sëñ Cheikh Bousso sama mag am na ci sëñ Massamba Bousso daaraam am na ci daara yi sëñ Bousso am na ci daara yi sëñ Bousso bi am na ci daara yu bëree bëri ci Mbacke am nañ ko xëy na nag doyut xëy na doyut ndax doyut mooy lan toujours ñun dañuy gis ne la ñuy jox école ba mooy ëpp toujours la ñuy jox daara ja loolu nag muy beneen problème boo xam ne ñun ñoo ko war a xeexal suñu bopp te ñun tu waxtu wu nekk mhm. ñun ñu ngi taxaw ci lu mel noonu loolu nag yeneen émission la mhm. waaye damay wax ne rek mhm. covid 19 bii nga xam ne dafa ñëw euh, maanaam cadre religieux pour la santé et développement bàyyiwu dara ndax daf ne cadre religieux pour la santé et développement santé ak développement nag bu covid bi ñëwee ñu gis ne développement bi taxaw na santé bi taxaw na kon covid bi day jëlaat lam doon liggéey yokkaat ko ci santé ci covid maanaam euh, cadre bi day jël li mu doon liggéey maanaam tourné waat ko ci côté maanaam Covid bi. waaye téewul nag lam doon dox. Hmm. ba tey ma koy continuer dox. Hmm. moo tax mu lëkkalee maanaam euh, euh, planification familiale. Hmm. ak Covid bi. di ci bay wallam moo waral muy jël ay temps de antenne di ko fay. ci émission rajo yi. di jàpp di jox ay zel ay doomi aadama. di di sensibiliser ay nit. di yëkkati alalam di ko jox ay nit ngir ñu dem di soññ doomu aadama yi. loola kon muy liggéey bu solo kon li am solo. ñu xam ko mooy. feebar bi jógeegu fi. mi ngi fi. donte nag yoramal nañ ne nit ñi dem uti ji liñ am. ndax it wax dëgg yàlla mënuñoo dund ak mënuñoo ñàkk dund ak feebar bi. ndax am na yeneen feebar yoo xam ne moom bu ñu ko bàyyee bu ñu bañee beneen feebar moo ñëw mooy feebaru ñàkk. te ñàkk nag day nërmal am boppam te loolu nag dara jël ko. kon nag nañ bàyyi nit ñi ñuy liggéey. Uh-huh. te xam ne ko fi yàlla bëggee jëlee dana ko fi jëlee. waaye matuwaay yi nag nañ ko jël. Uh-huh. ndax am na benn saxaaba bu ñu mësoon ñëw ci nabi sallallahu alayhi fekk ko fa nuyu ko nabi sallallahu ne ko kan nga àndal mu ne ko ànduma kenn xanaa sama gëléem gi wala sama fas yonent bi salaa salaam ne ko ana ko ana koo ko foo ko bàyyi mhm. mu ne ko ah, bàyyiwuma ko kenn dama ko bàyyi ci àll ba rek mhm. yonent bi salaa dama nee ne daf ne ko bàyyeen dama ko dénk yàlla mhm. yonent bi salaa salaam ne ko de demal ga yeew ko ci taatu garab gi ba nopp soog ko dénk yàlla ndax day bañ bu ëllëgee boo ko gisu nga tuumal yàlla dëgg la kon nag <laughs> li wala ah, li tubaab di wax rek xaw ma mieux mieux mieux vaut prévenir que guérir que guérir mhm. maanaam fagaru moo gën faju faju waaye waaye sama gars yi uh-huh. nañ leen dem kii xam naa ko baax a baax day ñëw si suñu jumaa bu soobee xam na ko uh-huh, waaye nit ñi uh-huh. dëgër nañ bopp de <laughs> da nga gis ay kilifa diine yoo xam ne ajuma day jot nga nga toog sa wet nga leen takk leen masque ñu leen ah joxe loxo ñu dañuy lànk di dañuy joxe loxo man nag am naa fulla gu toon ne ko koo mën a doon hmm. ci àddina hmm. duma la jox sama loxo bi. assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh manam yàlla sala yéen yàlla suñu borom subhanahu wa taala dafna wax wax ne. wa idha huyitum bi tahiyya fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha manam buñ len joxe loxo ku ñëw ne la jàbbu loxo. ne ko wa alaykum salaam wa rahmatullahi mo dàq. waye jàbbu loxo barki dem wax na ko. amna ko xamne ab taalibi la. man dama yemu sax keroog. kuma waxone lu mel noonu amna dama koy weddi. euh ma laaj ko ne ko wa diw. mu nuyu ma bëgg maa jox loxo ma ne ko ah jamono yii de sëñ bi dañuy wàññi joxe loxo gi. Mm. waaleykum salaam. Mm. ana sa kilifa sa wayjur. ma mm. turu tur bi nag. maanaam bu ñu ko mu ne ma ah, moom de dafa feebar ñetti semaine a ma ne nekk mu ne mu ngi hôpital ma ko lu ko dal mbaa jàmm la. Mm-hmm. mu ne ah moom kat dafa xool ko ne feebar bi mbas mi moo ko dal. muy mm-hmm. Covid 19 mu ngi mm-hmm. hôpital. ma ne ko ah. anam mu ne ko mu ngi hôpital ah, ma ne ko ah kon yéen waa kër gi mbaa quarantaine ñoom mu ne quarantaine waaye police de ku fi joxuñu lu ñu lekk ma ne ko moo tax yow nga génn ba noppi di nuyu nit ñi kenn ku nekk nga koy saafoo di ko jox sa loxo di ko sujjóotal mm. mais sëñ bi yow yaa ngi def lu danger mm. du nii restissez-vous xanaa xamoo ne aar goog boo gisul policier nekkal sa policier bopp. se mhm. bi nit la. mais commissaire Diédhiou nit la ñun. Mhm. am na jabar am nay doom. Mhm. mais li muy yëg yëg ko. du yàlla du yonent bi. mais li muy def liggéeyam lay def. as commandant bi liggéeyam lay def. kon nag yow yaa war a aar sa bopp. yaa war a aar sa bopp aar sa njaboot. te sa njaboot société bi sénégalais yi nga bàyyi daa bi ci lañ bokk. waaye nga génn ñu quarantaine la ngay dem di nuyoo ji di nuyoo ji. mais yaa yow na la mën na ko nag na leer ne. képp ku am feebar bi ngir yow. maanaam bakkaaru doomu aadama yooyu ci loru yëpp. Mhm. ci yow lay gàllam saw man nag kon foofu laa ciy wax rek di sensibiliser nit ñi nit ñi daal nañuy moytandiku nañuy fegoru mhm. nañuy fegu mhm. nañuy fagaru waaye nañuy fegu fagaru ak fegoru nag bañ fegoru mooy maanaam euh, fegoru mooy nga fexe ba maanaam jël matuwaay yi nga xam ne waaye fagu nag mooy yii nga xamante ne dañ koy jël muy masque yi mm. raxasu yi mm. ak ndaje yi mm. ak booy tisool yooyu ñu ci wax moom mosu fee jóg te du fi jóg kon nañ continuer loola waaye naan affaire bi wàññeeku na wàññeeku na ngay commencé di nuyoo ndax gars yaa ngi commencé waat di nuyoo de gars yi ñi ngi commencé waat di jege dawatuñ dara ñi ngi bokk pot ndaa yi di naan ñi ngi bokk ndox nga gis koo xam ne day naan ci kopp ba noppi jox ko moromam mu naan te Sénégal dañoo dëgër bopp te buñ jaaxlee dem ci sëriñ bi moo tax benn sëriñ bu mu nangu ñu sëriñ bu ci nekk yaa war a quarantaine sa bopp addiye yi lay taalibe yi di jox bu mu la jaral mukk nga ñàkk a quarantaine sa bopp quarantaine sa bopp mm-hmm. te xam ne li wér sa wërsëg te yàlla tudd ko ci yow bala ngaa di génn àddina ko am na solo jërëjëf sëñ Xawsu kaddu yi am na solo jërëjëf ki nga xamante ne si it euh, moom mooy sëriñ Moussa Seck jërëjëf sëñ Abdoulahat Mbacke euh, kaddu yi am na solo xam naa waxtu wi rek moo ñu njëtt xam naa damay daal di def tour de table rek euh, bàyyi sëñ Moussa mi nga xamante ne si rek moom mu tàggu askan wi nga xamante ne ñun ñuy déglu waaw ah, jërëjëf sëriñ bi ñu ngi rafetul lañu vraiment émission yi xam ne wér-gu-yaram moom <laughs> lii docteur yi di jàng ci tubaab waa daara ji dañ koy jàng ci mm-hmm. yeneen langue mm-hmm. muy docteur mm-hmm. te diine ji tamit bàyyiwul dara téere bi bàyyiwul dara waane nag saar xam nga bariwul trop waane xam-xam boroom xam-xam àddina yëpp suñ si dajewul tamit mënuñu see ànd loolu nag mooy wane na yàlla dong moom moom mat li mu bind fii kenn mënul xam lépp moo tax dañ siy werante émi waxtaan bi ñu doon def keroog ci dispensaire bi rek. Mhm. loolu la borom xam-xam yi def noonu ci werante mais nag dinañu tomber d'accord sur l'essentiel li nga xam ne mënta ñàkk. waaw léegi nag li ñu li ñu waxoon fii rek ni mooy nit ñi comme sëñ bi wax na ko léegi. Mhm. feebar da war a dem hôpital. dëgg la dëgg la lu la mun di dal da war a dem hôpital. Mhm. Covid bi nekk fi ak bañ fee nekk da ngaa war a dem hôpital parce que foofu dañ ko fay defar pour muy faj nit ñi jël prise en charge nit nañu dund ak moom mooy nañu def dund ak moom moytu li sëñ Bousso wax léegi moom dañ koy gis nii sax waaye dama léegi ku la jox loxo mais nga ne ko lii diine ji sama diine euh, salaamaaleykum moom la ma gën a sant xanaa kay dañuy saabonte mais boo demee nag ba nga xamante ne wóolootuma la mbaa ma jox la sama loxo doyatuma bul ma mm-hmm. forcé di ma nuyu rek na ñëpp def noonu di wax diine ji salaamualeykum wa rahmatullah foofu la ñuy wax ñi si des nag uh-huh. mooy mesure barrière yi nga wax ne uh-huh. loolu la nit ñi loolu la nit ñi war a def mooy li ñuy wax ne wàllante bi uh-huh. ci ci tiflitu gars yi vraiment foofu ak li nekk si bakkanu nit ki foofu lay jóge bu mu tas nag uh-huh. foofu lay jóge mën a tas nag li ngay laal nag ba mu tas ko uh-huh. làmmeñ boo waxee mën na tisooli fii mu laal foofu mën nga faa yóbbu sa loxo soo paree comme nga dem nuyu nit kooku jël loxoom raxasuwul mu laal ay bëtam wala bakkanam wala gémmiñam doomu jàngoro bi dugg si moom mhm. les surfaces contaminées gis nga mhm. bunt yi nit ñi di bokk mhm. loo yeeg caabi yeeg affaire yooyu bunt yi commande télé yi robinet yi satellite yeeg ordinateur yépp dañ ko war di fomp di ko waaye waxtu yu nekk yooyu raxasoog saabu bi moom toujours moom bu dul Covid moom nit daf dañoo jëloon juróomi moment yoo xamante ne nit dafa war di raxasoog saaw boo génnee sa kër ba duggaat si soo jógee si woon a ngi bala ngaa nàmpal sa doom bala ngaa togg añ ak yooyu dafa loolu nag dañ see dolli ne la nag fii mu ne waxtu bu nekk daanaka danga war a raxasoog saa bu fekkee kay yaa ngi sa kër am na soo nekkul sa kër nga nekk ak nga yor alcogel waxtu yi waaw loolu daal ñi ngi moo ñu njatt kon ne ñi ngi yemale <laughs> foofu di remercier suñu médecin chef district <laughs> uh-huh. di encourager personnel santé bi yëpp di leen uh-huh. féliciter encore ci liggéey bi ak uh-huh. autorité yëpp merci jërë ngeen jëf waaw kay am na solo euh, ma joxe numéro 19 19 boobu léegi mooy numéro cellule d'alerte bi mandarga yooyu ci sa bopp nga woote leen numéro boobu daal vraiment baax na trop merci beaucoup am solo bu ko defee rek eh, xam damay jox sëñ abdoulahat mbàkke eh, moom eh, kaddu yu mujj ndax waxtu yu moo ba teg nañ ci sax loo xamante si ki war a teew fu nekk nii xam journal bi la ci fi bu ko rek askan <coughs> waaw leen rek sant ñi nga Euh, maye yaatal gi nga xam ne ci la nit ñi jàllale li bëgg a jàllale ñu ko suñu xam su waxee woon maanaam nit ki moom bu dee su mel fu mel ni suñu réewum Sénégal bi nga xam ne lu ne am na ñu ko fi xam maanaam xam-xam bi dafay dafay tasaaroo. Mhm. lu waay bëgg def rek wala loo soxla boo boo jàngut itam boo doxee tuuti daal gis ku ko leeral. Mhm. maanaam ndax nit ki warta dund ci làmbatu. muy mhm. diine muy ah, muy adduna lu muy lu mën a doon yàlla dénk na ko ñoo xam ne xam nañ ko ndax. falawlaa nafara min kulli firqatin minhum taifatun liyatafaqahu fi diini wala yunziru xawmahum wa izaa raja'uu ilayhim la'allahum yahzaruun suñu borom ko waxoon xamoon na ne ñëpp mënuñoo ànd jàngi waaye itam lu ci ne dana am ñu ko jàng ñoo xam ne ñoo ñooña darañ mën a sukkandiku ci ñoom kon loolu rek mm-hmm. lu mat a bàyyi xel la comme mm-hmm. noonu lu ko xaw suñu jëwoon mm-hmm. kon ñu leen sant bu baax a baax waxawaat rek kenn ku ne loo xam mën nga cee liggéeyal yàlla borom xel mi ne liggéeyal yàlla ci xelam borom doole ji liggéeyal yàlla ci dooleem borom alal ji liggéeyal yàlla ci alalam su ko defee lépp day complète ndax kaatim xilmi yàlla xam nahu kullu shay'in xattal xóotu fi baari wa tawri fi samaay ko suñu xaw si waxoon léegi borom xam-xam ki xam dara ba noppi nëbb ko nee na lépp da koy rëbb ba ci jën jën wi ci biir géej ak picc yi naaw ci yow yëpp neen dañ koy rëbb mooy kon xam-xam dees ko war a labiré a ko waaye kenn mënu ko denc. kon ñu leen sant di leen gërëm. Mhm. di ci lépp loo xam ne dégg nañ ko fi ta euh, jàpp jàpp ne noona la rek. dañ mhm. koy jéggalu baax a baax. Mhm. sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala xaw si yow it xam naa ne euh, kaddu gu mujj xamante ni si rek ci tënk waaw ci tënk waaw xanaa ni ko mbokk yi waxee rek ci muqaddima bi leen jaajëfal di leen gërëm di leen sant mhm. nga xam ne yéen ñu mooy opportunité bi nga xam ne mhm. mooy bawal bawal média mhm. bi nga xam ne incha allah ñun fas yéene def partenariat ak yéen di liggéey incha allah loolu moom danaa ci bay sama wàll bu mag a mag ci Sëriñ Saaliwu incha allah ndax wax dëgg yàlla rajo askan wi la te ñun askan askan wi rek moo ñu ñor. Mm-hmm. ndax lépp loo xam ne raison Diourbel. couvrir na ko. Mm-hmm. Euh, soxla nañ ko rawatina nag loo xam ne dafay génn niveau national ba international bu jaar ci internet bi. Mhm. loolu lu ñu la. Mhm. kon incha allah mom nana leer na yéen partenaire yi la ñuy séyante géen mhm. ngeen ci biir cadre bi di liggéey ak ñun. fu ñu dem ci biir réew mi. allah suñu premier partenaire incha allah. loolu moom danaa ci euh, layoo euh, teewal ko ci Serigne bañ nangul ko allah. ndax loolu sama liggéey la bokk. beneen bi ci di ziar Serigne Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi loolu te wér. di ñaanal mboolem kilifa diine di ñaanal sama mag Serigne Guédé Bousso mi nga xam ne mooy Serigne Diagne ak Serigne Thierno mi rakkam nekkal ko fa ak Serigne Amath ak ñoom ñëpp di leen ziar bàyyiwuñ kenn ci njabootu Bousso bi gépp di ñaanal Serigne Abdoulahi Mbacke muy yàgg fi loolu te wér waaye ni ko noonu tamit di wax ne fan yi damaa am lu ma métti lool mhm. loo xam ne nag xëy na métti na ma waaye sa beneen côté sax dana ma xaw a neex muy ki nga xam ne mooy porte parole yoonu murit mhm. ay nit yoo xam bëgg a yoonu murit mhm. tax ñu koy guddi ak bëccëg di ko sonk te képp ku ko attaqué yoonu murit gépp nga attaqué muy Cheikh Mouhamadul Bachir ndax dégg gis nañ ay journaliste ma ma jàmbal jaañ lañ koy xuma ma jàmbal moomu nekk ci télévision bi ak yenn ñoo xam ne ña nga nekk ndakaaru jàpp ne ñoom ñoom ndakaaru te ndakaaru Serigne Touba moom ndax guddi gam fa fanaan la fa jëlee ak lor andi fa njariñ moo fa andi Masaalikul naan gee kon Cheikh bas waxuma la ay waxuma la suufu Ndakaaru lu toll génn kër waaye ay hectare bu ko fa soxla woon war na koo am ndax maama moom dëkk xam naa dinañ koy yaatal waaw dama damay damay tënk rek ndax dafa am loo xam ne dama ko ci wax ba tax na damay wax ne bu ko kenn xas bu ko kenn def lépp loo ko wax rek ñun ñëpp nga ko wax ci lu baax loo ko wax tamit ci weneen safaan moom nga ko def doomi Cheikh Abdoul Khadir la fañ ko yem loo fa la yem kon loolu ñun ñëpp nañ ci bokk sàmm ak loolu beneen bi ci topp bi nag ngi jaajëfal ñëpp tey sant ñëpp te di la gërëm mm-hmm, di ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala jotaay bii nga xam ne lañ fi andi mm-hmm. lépp luñ fi wax jariñ ci ko jéggal ñu ngi di leen jox rendez-vous mm-hmm. insha allah ci yeneen fan nañ ñu xaar ci yeneen i émission bi dana continuer insha allah ci dul yàgg dara asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu numéro téléphone bi nag sama numéro téléphone 77 la 435 13 79 man maay point vocal bu cadre religieux pour la santé et développement boo xam ne képp koo xam ne lu jëm ci cadre bi jëm ci wàllu diina ci wàllu planning ak yeneen yi nga xam ne aspect diina la jaaxal la wala nga bëgg cee bokk ak noo mën a ànd ak ñun wala nga am yenn xalaat yoo xam ne dañ ñu koy yokk mu ñu jariñ te hmm. ak diinu an nasiha mën ngaa jokkoo man ci ci bi ma la jox hmm. maa ngi Mbàkke Bawol kër Sëriñ Jaañ Buso jërë ngeen jëf Eh, jërëjëf eh, sëriñ Xawsu mu doon kaddu yu am solo jërë ngeen jëf eh, yéen mbokk yi nga xamante ni si yéen doon bàyyi xel seen rajo Baol Média FM di leen ñaanal jàmm tey ñaan suñu borom tabaaraka taala rek boole ñu defal jàmm ci li nga xamante ni si waa CRSD ñi nga xamante ni si ONG bi ñu dajaloon ngir rek yaatal liggéey bi nga xam ne moom lañ doon liggéey canta ngërëm ñeel képp ku doon bàyyi xel rajo Baol Média FM 97.1 fii ci xàll wi jëm Touba Mbacke Bawol tabla caa bi canta ngërëm da leen di ñeel seen ndongole Moustapha Thiam moo leen ko doon defal ci micro micro bi jërë ngeen jëf ba beneen yoon.